shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum mbokki jullit yi asalaamualeykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu siwaat ak yéen niñ koy defee dimanche bu jot ci waxtu yi ci seen émission diaspora ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Pape Makhtar Tall fële ci Parme ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci geneen wàll wi eh, seen ndongo Pape Demba Dia fii ci Pontedera ñuy ziar ñëpp di jiital ci ziar bi suñu yaakaar teeg ëllëg xalifatul am sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar mboolem kilifay diine waaye di ziar sunu mbokk mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi yépp rawatina nag ñi nga xam ni ñoo féete fii ci Italie euh, mu mel ni Italie mënoo tudd diaspora sénégalaise ba pare génne ci communauté chrétienne bi ndax bari na euh, mbokk yoo xam ni daanaka ñu ak ñoom ñooy bokk liggéey bi bokk taxawaay bi rawatina nag bokk ci instance yi nga xam ni moom lañuy ànd di liggéey lu mel ni CADES ak yeneen yi yeneen yi yëngu

Eh, xanaa rek damay jox sëñ Pape Moxtaar mu dugg nuyoo ñu doog laal tomb bés bi tey sëñ Pape bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Pape eh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci sangu-sang yi eh, di jiital ci nuyoo yi sëñ ba siir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér. di nuyu suñu mbokk talibé yi di nuyu mbokk julit yi di nuyu mbokk sénégalais yépp fépp fu ñu mënti nekk di nuyu suñu buntu ci sëriñ touba di sëriñ salim mbàkke daru salam di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ànd ak wér eh, di nuyu suñu jëwriñ yi ci rajo bi di sëñ mahmadan ak sëñ ibrahima buñ leen tuddee rek daanaka mel na ne tudd nañ ñëpp xanaa beral loxo rek suñu technicien sëñ modou mbay cham bay fall di ko ñaanal momit yàlla may ko ndëgër laay ba loxo bi wér te it li mu ci rajo bi eh, Serigne Touba wan ko yoon wu leer wala mu ci bëgg mu am ko eh, di nuyu waa Parma di leen siyaar bu baax baax di nuyu suñu mbokk taalibe yi nga xamante ni ñu ngi ci àdduna bi fépp fu ñu mënti nekk ndax xam nañ ni rajo bi moom eh, bu ñu yaboo ni yamul Italie rek dañu ngi koy seetaan ci Facebook bi ñu ngi koy seetaan ci YouTube bi boo demee Sénégal it ñu ngi koy diglu ca rajo ya chi nag foo ci dem ci àdduna bi mën nga koo déglu kon ñu leen di eh, tàllal suñ loxo di leen di leen jaajëfal di leen baal àq it di leen baalu àq ci weer wu sel wi ñu nekk comme sëñ Pape xanaa ma delloo la rek eh, bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi ci kàttun yàlla. jërëjëf sëñ Pape Mokhtar eh, jërëjëf mbokki auditeurs yi di leen fàttali rek ni yéen ngi déglu seen émission diaspora fii ci. rajo xasida online ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall noo ngi ziar ni nga ko waxee rek suñu jëwriñ ci rajo bi sëriñ Mouhamadan Mbacke euh, moom ak sëñ Ibrahima Ndiaye fàtte wu ñu suñu yeneen jëwriñ yi nekk ci biir ñoom sëñ Ablaye ak sëñ Bargo Mor Silla gaa yi nekk ci biir yëpp ñoom sëñ Mourtala euh, ñu ngi ziar ñëpp euh, fas yéene rek dellu siwaat ci liggéey bi waaye mu mel ni euh, dina jafe lool ñu génn thème yi nga xam ni moom lañ daan waxtaan ci ci fan yi ndax mën naa ni ñetti ay bés a ngi nii daanaka benn argument rek moo moo nekk ci àdduna bi yëpp euh, mu di lii nga xam ni moo di euh, xew-xew bii nga xam ni moo xew ci jamono mm, di mbas mii nga xam ni moo di coronavirus Euh, ñun nag fii ñu nekk ci itali mën naa ni bokk nañ ci ñi nga xam ni ñoom la gën a touché tey jii boo génnee ci wàllu numéro mën naa ni boo boo boo génnee Chine rek di dëkk ba nga xam ni fa la juddoo Italie nga ci teg ndax jamono jii ñuy wax ak yéen defe naa ni ñu ngi toll ci vingt mille yoo xam ni eh, ay vingt vingt mille personnes fii ci Italie yëpp yoo xam ni ci lim euh, loo xam ni contaminé nañ ko euh, ci wàllu ñu fi faatu euh, ñu ngi tollu ci mille huit cent ak lu teg kon mu mel ni dimanche bee passé ba ñuy ba ñuy wax ñu ngi woon daanaka ci dix mille waaye diggante ay bés dafa mel ni euh, euh, ci wàllu lim euh, wàññi bi dafa dafa dafa dafa dafa mu nekk loo xam ne xëy na mën naa tiitloo doomu aadama waaye xëy na ñi am xam-xam ci loolu du leen tiital ndax xëy na bu ñu jëlee mesures yi ñu jëloon semaine passée fekk na boobu daanaka jàngoro ji commencé na Euh, tasaaroo euh, mënoo téye li ñuy wax ni mesure euh, crescente bi waaye dina am jamono joo xam ni xëy na buñ ci demee am nañ yaakaar ni xëy na fii ak semaine prochaine nga xam ni li tubaab di wax bu laalee picco bi maanaam bu laalee fa gën a kawe dafay commencé wàcc ñu ci am rafet njot di ci ñaan maa ngi gis démb rek image bu Euh, ma ci métit sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci nord bi tàmbalee comme Lombardie yëpp waaye mënoo cee bañ a dindi euh, dëkk yu mel ni ay Bergamo Brescia nga xam ni concentration bi foofu ci en matière de numérique dafa doon lu yéeme donte bu ñuy wax ni jàngoro ji mu ngi fa mu gënoon laal mu ngi loo Lode Codogno waaye démb boo xoolee image bi ñu wane Bergamo mu doon image bu bu tiitlu euh, ñu wane bés bi yëpp rythme ah, euh, maanaam corbillard yi nga xam ni euh, oto yi yóbbu néew yi ñu ñu ràññale daanaka daf lay jox maanaam xëy na ñun du ñu jaaxal ñun ñi nga xam ni dañoo dëkk Touba waaye ñi dëkk fii ci doomu aadama dafa nekk lu leen di jaaxal ndax fii te jii boo xoolee euh, pandémie bi biñ ko defee euh, donte en matière numérique bariwul euh, waaye li tax mu yéeme bari ci ñoom mooy li li ëpp ci li faatu fii la faatoo Europe ndax boo xoolee jàngoro ju mel ni sibiru mi ngi rey lu ëpp choléra rey na lu ëpp lii lii faatogum Ebola noonu waaye daanaka boo xoolee ñu ko déclaré pandémie loolu daf ñuy delloosiwaat rek ci valeuru doomu aadama ci fa muy ak ak ña koy ña koy taxawal ci wàllu euh, aar ak yelleef loolu euh, xëy waxtu wi du waxam suñuy kilifa xëy na euh, nañ ci liggéey bu bari bu ñu war a dox ni dem nañ sax bu mu jóge fii dem duggi suñu réew ndax gis ngeen fan yi xew-xew bi wax ji yëpp fi mu ne nii daanaka ci ñun ñii la immigré yi euh, euh, loolu dafay delluwaat ci valeuru doomu aadama bi ñuy wax ndax tey jii boo xoolee fii ci itali vingt mille personnes yi mu laal vingt mille personnes yooyu euh, doomu aadama bu ne mi ngi ci waaye doo dégg mukk ñu identifier donte que Italie sax tàmm nañ bu xew-xew yu yu ay xew-xew chronique ame waaye lii nga xam ni wàllu sante la wàllu jëmmi doo aar doomu aadama gis ngeen ni ñuy blindé par exemple notice euh, yi ba nga xam ni sax nit ñi ci seen bopp ñoom ñooy génnal seen bopp wala mu mu am ay nit yoo xam ne ay doomu aadama yoo xam ni mu ne surtout nëbb seen faatu ku mel ni par exemple président ordinaire Médicis yi nekkoon Varese nga xam ni kii bi moo ko rey ku mel ni Olimide nga xam ni moo doon nit ku ñuul ki nga xam ni moom lañ ci njëkk a dégg moo nekkoon présidente moo njëkk a nekk présidente concilio degli stranieri fii ci Italie Reggio Emilia ak ñeneen i doomi aadama yoo xam ni seenu dégg seen tur moo tax na mëneesut a ñàkk nëbb nouvelle bi waaye kenn xamul kan la waaye gis nga Sénégal daanaka dem nañ ba nga xam ni ñi ngi dugg ci privacy fi mu ne nii dëkk bu mel ni Touba wala dëkk yu mel ni Géejawaay bëgg dem kut ko kut di def pression ci corps sanitaire bi pour ñu wax leen euh, maanaam ñan ñoo infecté daanaka pour ñu ñu ñu ñu ñu euh, cere leen loolu nag nekk na loo xam ni ñun africain war nañ ci bàyyi xel ndax euh, jamono ji dafa nekk jamono solidarité boo xam ni lu mat a bàyyi xel la jamono ji dafa war a nekk jamono joo xam ni ndax loo xam ni kenn xamul kan la war a mën a dal ku nekk mu ngi ci daanu amul ku humilié tey jii jabaru euh, euh, vice président jabaru premier ministre Canada am na feebar bi gis ngeen footballeuru calcio yi nga xam ni ay millionnaire lañu ay ñoom ñëpp c'est des milliardaires ñaata lañ ci daan joueur NBA dal na ko président wu Brésil Bolsonaro dal na ko euh, vice ministre salut salute bu itali dal na ko ak ñeneen ak ñeneen ay sindaci fii daanaka mën naa ni corps médical bi bokk nañ ci ñi mu gën a affecté pour le moment daanaka ñi ngi ci sept cent personnes yoo xam ni corps médical la ñi ngi jëlee jàngoro bi biir hôpital te dara jox lu leen ko lu dul dem di di faj ak di taxaw doomu aadama ñu leen di masawu te di leen jaajëfal bu baax kon euh, loolu war nañu war nañu ci amaat ak njàngat euh, waaye it ma bëgg duggaat tam laalaat ci beneen facteur loolu laa bëgg ñu waxtaan ci tey jii parce que ñaari tomb la ñu bëgg a waxtaanee benn bi nekk bu njëkk ci ci facteur économique bi ñun ñu nekk fii doon ay liggéeykat nga xam ni daanaka semaine bii ñu jëm économie bi daanaka lépp taxaw na mu bari liggéeykat yoo xam ni dañuy nekk ci kër gi war a dem jël li ñuy wax amortisateurs sociaux yi yan condition lañ ko war a jëlee ak naka lañ ko war a jëlee ñu bëgg ci xuus tuuti laal donte. décréto ministériel bi publié publié gul li nga xam ni mooy directive yi nga xam ni décret d'appli applicative yi ba ñu mën a xam naka la ñuy taxawee waaye li ñu gën a bëgg laal tey jii mu di euh, lii nga xam ni moom la xalif général def xalifatul am Sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, ba mu déggee xew-xew bi rek jóge Poroxaan dafa woo euh, porte-parole am di Sëriñ Bass Abdou Khadre Euh, génne deux cent waxtaan ci jàngoro ji wax la ci diine wax wax la ca àdduna wax maanaam ci wàllu conseil naka lañu ñu war a taxaw yan directive la euh, docteur yi joxe nan la ñu war a def waaye nag génne xaalis boo xam ni daf ko jox gouvernement bi ni nañu nañ ci jàppandiku ba pare nag ni murit yi dama bëgg ngeen taxaw jël tànk yi ñu def ngir taxaw euh, euh, gouvernement bi ngir ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a affronter lii nga xam ni moo di xew-xew bi ndax jamono yii de du jamonoy parti du jamonoy couleur du jamonoy religion du jamonoy frontière ndax gis nañu ni euh, mu ngi tàmbale Chine ci ñaari semaine dugg na Italie tas na teg na économie mondiale à ginocchio esport lépp luy économie actuellement taxaw na bourse yi euh, euh, amatul lenn luy dox dem nañ ba nga xam ni gis ngeen euh, ñi daan wax sax wàllu immigration talatuñ ko ku ci nekk yaa ngi xool nu nu nu la sa morom di dimbale tey ji yéen a ngi xool communauté européenne ba daan woote di wax waa maanaam union union ku ci nekk yaa ngi seet noo def ba defar sa stock alimentaire say stock médical Euh, euh, euh, gànnaayuwaat sa frontière ñi tëj seen frontière sunu xalif am benn vision ni sunu état dañ ko war dañ ko war a aar ñun ñun ñun yi ma gis ni boobu ba léegi amagul benn sénégalais bu taxaw daanaka xool vision boobu ni xalif bi kat lii mu def man dama ko rafetlu dama bëgg ci tànk yooyu laay jaar joxe exemple Sénégal bari na ay milliardaires tey jii yéen a ngi xool fii euh, Italie au niveau de l'Italie milliardaires yi ñu ngi génne ay millions d'euros di ko jox état bi pour ñu ci taxaw euh, ñun sénégalais ñu ngi nekk di xëccoo di wax lan mooy sunu euh, argument principal coronavirus am na coronavirus amul coronavirus mi ngi fii coronavirus mi ngi nekkul fële est-ce que jaaduwul ñu jóg taxaw xool ne lii kat xew sunu dëkk egsi ay eh, xew ci àdduna bi egsi na sunu dëkk ñun ñi nekk bitim réew ñu taxaw xool seet ban taxawaay lañu ñu war a am defaruwaat ndax kaay ma wax leen fii trois semaines bu ñu fi taxawee rien ne sera comme avant war nañu mën a jóg xoolaat suñu bopp waaye nag bu ñu amee kilifa gu mat kilifa wan ñu yoon wi ñuy jaar est-ce que jotul ñu jóg am ci ak njàngat jéem a seet ban taxawaay la ñu war a am loolu daal bëgg naa tey jii ñu waxtaan ci maa ngi rafetlu nag bu baax association bi nga xam ni defe naa ñoo nekk Veneto soxna Jéetal maa ngi koy publier sama sama page euh, wane na yoon wi jóg na ñun ñu nekk fii génne six cent euros six cent euros yooyu tey jii mi ngi mel ni ci man six millions d'euros six cent euros ñëpp xam nañ ni benn matul sax benn salaire wu fii mais jigéen ñi macha allah. seen xel dafa rafet jamono ji ñi ngi polémiquer suñu représentant ku nekk di wax ñoom ñu jóg def geste bi dem protection civile génne ko joxe ko contribution au nom de la communauté sénégalaise nga xam ni jamono ji ñu dund fii sénégalais yu bari ñu ngi fi en difficulté fii sur 15 sénégalais six si ay jaaykat lañu peut-être onze yi ñooy liggéey jaaykat yooyu ñu ci bari duñu verser amuñu sax existé wuñu ci ci ci ci au niveau de l'IMS ñooñu tey jii dañoo toog amuñu benn amortisateur social ña leen war a taxaw ñu kenn ku ñun communauté bi daayira yi association yi euh, euh, est-ce que jaaduwul ñu jóg def ay réflexion loo ci loolu yëpp euh, taxaw créer benn bloc wan nee ni Italie ñun dañu bokk ci ci société bi suñu participation ci mbir mi nii lañu fas yéene taxaw tey daal sëñ Pape loolu laa bëgg ñu waxtaan am yaakaar nag ni jëwriñ yi daayira yeeg président d'association yi képp ku mën a dugg na dugg ñu joxe suñu xel parce que nag jot na ñu génn avec des idées concrete te bàyyi waxta euh, werante bi ak euh, nekk di def ay des fois ay euh, ay ay live yoo xam ni presque amul benn njëriñ parce que taxawaat di wax ni coronavirus am na ak amul amatul luñ ci wax lañ ci waroon wax ñëpp ña ko war a wax ñi ngi koy wax tey jii kuy xool tere Italie gis ambulance yi dem nañ ba nga xam ni am na dëkk yoo xam ni ambulance ya fa nekk doyatul ñi ngi génne lii di def ay tente militaire ñu bëgg taxaw di wax corona ay ay fiction la ñu koy wax dañuy wax lu leen neex sëñ Pape daal tey jii ci ak thème yooyu laa bëgg ñu wax bari na nag waaye tàmbaleel ci fa nga mën ñu xaar seet mbokki taalibe yi yi fas yéene dugg ñu ñu relancer émission bi sëñ Pape bisimilah. waa jërëjëf sëñ Pape jërëjëf introduction bi moom vraiment macha allah euh, riche na lool riche na lool macha allah euh, di wax ni rek euh, xam naa foofu foofu nga daanale foofu laay jëlee maanaam dafa am benn niveau boo xamante ni ñun dañu ko dépassé ndax bu fekkente ni dafa am lu ñu war a gëstu di xool lan moo fi indi feebar bi. kooku yaakaar naa ni euh, man du sama faculté du sa faculté yow te it ñu koy wax it mënuñu ko lijjanti ba lijjanti euh, tegal ñu ko ci taabal ji kon du suñu cër waaye lañu ca leer te leer ñu ca mooy fii ñuy waxee nii bi ñu ko waxee diggante janvier ba tey jii àdduna bi wërngal këpp plus de six mille morts faatu nañu fi euh, dee nag moom yàgg naa am ci dëkk bi feebar yàgg naa am ci dëkk bi waaye feebar bu ni mel buy faat doomu aadama yu ni toll ci ay waxtu yu néew man de ba ma juddoo ba léegi gisuguma ko xëy na nag am na yeneen feebar yu ko daan def waaye man fekkewuma ko ndax lu ndaw laa waaye toll foo xamante ni di naataable naan am na wala amul yaakaar naa ni sa niveau xaw naa baat trop trop trop nañ ma jégal ci kàddu gi ndax to am naa yaqin ni bu fekkonte ni Sénégal gële na mu fa duggee def na fa maara détail yi ay dégâts comme ni mu koy defee ci yeneen dëkk bu bu boobaa am naa yaakaar ni du mu waxee waxin yi ndax xëy na euh, ña muy dal wala ña koy wax dafa am njàngat boo xamante ni dañ koo jàngut ci feebar bi wala ils sont pas informés ci feebar bi ndax médecins yi boo leen di déglu. Euh, donte ñu ci bari boo leen déglu sax dangay ngay xaw a perturbé wu parce que bu la ki waxee lii kii wax la lële kële wax la lële ba ci contamination bi saa bu yàlla sàkkee ñu ngi lay wax ne la lii sax dala koy contaminé ñii ngi lay wax ne loxo loxo nuyoo ñu ngi lay wax ne la jege ñu ngi lay wax ne la léegi sax euh, day day tegu ci euh, asphalte bi ci ci ci ci ci tali bi ba yow boo ko dëggee boo ñëwee sa kër deel ubbi sa tànk kon ñun fa nu waru tënku ci sama xalaat mooy ah lépp loo xamante ni wax dëgg yàlla dafay gàllankoor suñu wér gi yaram ñu maytu ko wala du am la ñuy wa faral di wax ñun ca olof di wax naan ay dana màtt ak du màtt bu jox sa loxo man duma jox sama loxo jox nañ ma ay jumtuwaay yoo xamante ni nee nañ ma naa ci tënku naa tënku ci jumtuwaay yooyu ndax am na loo sama xam-xam àggu ndax nit da ngay am humilité bo xamanteni da nga nan sama xam-xam bu ci li ña màcc ca lola ñoña ñom ñoy dox lolu man duma docteur bokkuma ci kërup docteur man duma kat duma kon ñoñu am na ñuy recherche virus bi fu mu joggé ak fu mu joggé wut ak lu ko indi lan moy génétique bi lan moy identité bi lan moy leneen ak leneen lañ ci xam rek te mu leer ñu xil moy ne ka batay ji kenn ñu wax ne ñu lié koy dañuy wax rek saa su ne nañu jël leen seen matuwaay kon naa yam ci jël sama matuwaay ndax réeréwu mbir ni dëgg-dëgg ay nit ñu ngi ciy faatu ndax tey bu ñu toogee ba gis ni euh, ñi ci faatu daanaka ñu ngi toll ci euh, plus de six mille morts dans le monde ah Italie gii ñu nekk rek pratiquement ñi ci ñi ci faatu kenn xamul nu mu toll euh, système sanitaire bi dem ba chaotique dem ba nga xamante pronto secours yi dañ koo tëj dem ba nga xamante ni yow même bu fekkee yëg nga dara ci sa yaram sax boo woowee sa docteur dala naan bul dem hôpital parce que kenn du lu jël dem ba nga xamante ni am na yenn médecin de famille yoo xamante ni ay généraliste lañu dañ leen a impéñaare pour woo ne leen nañu ñëw hôpital dimbali hôpital yi dem ba nga xamante ni même ñi demoon retraite doon ay docteur dañ leen a woo tàllalaat leen loxo ni leen dellu siwaat leen ndax seen dëkk da leen soxla sëñ bi même bu dee guerre Pierre sa dëkk dalay tàllal loxo ne la ñëwal nga bokk ci li euh, xeex bi ndax nga defendre couleur nationale bi kon ñiy taxaw di laam-laamee naan am naa ak ñàkk naa am wala ñàkkuta am yaakaar naa ni bu dee ay taa bu doon bu doon taalibe dëgg lañu dinañu tënk ci ndigal li nga xamante ni sëñ ba Bachir joxe na ko ndax sëñ bi non seulement euh, laam-laawee laam sax ndax am naam amul ndax Euh, ñaka wara jot jot nañ ko ñamu wara waxtaanal waxtaan nak ñoom raw yamatul sax foofa nak ma euh, bàjjo bi yëkëti xaaliss bu ni tollu tek ko ci tabal ji mais bu bu bu bu bu aajowoo loo xamante na tax xamna xel ni du yam fof ndax xamna ni bu ko tegee ci tabal ji talibé yi ko ci fekk momit du ci bayyi talibé yi Tek ko ci table yi xam xel ni ndax mom vision jitu nañu jitu na ñun suñu vision ndax xam na xel ni li du ay ko kopparantu mo koy fajj du ay parantu mo koy ar ndax señ bi bu dé ba génné 200 millions képp ko xamanteni borom bax nga nga nek Sénégal euh, nga wara roy ci loolu wara tek ci table ji lu ñu tollu wala wala lu ko jege wala ilaa sax lu ko ëpp taalibe yi def noonu yaakaar naa ne bu nu àndee noonu danañ daan li nga xamante ni mi ngi sonal lëmbe àdduna euh, forme de solidarité bi mooy lii ñuy wax nii rek sëñ bi wane na ko sëñ bi wane na ko euh, man sànq damay waxtaan euh, ci benn rajo ma ma leen naam ñun ñoo ngi fii mënuñu euh, créer benn forme de solidarité pour Sénégal parce que tam bala nga laa bala ngaa laax jaay laax lekk ndax ñun fii leen ko gën a yelloo ndax tey daayira yi mënutuñoo def daayira pour que nga mën a dem mën a laaj euh, ay koppar pour mën a dajale dara pour mën a jàppale le système sanitaire parce que tam bu nu fàtte ni ñu nit dañ kon danoo bokk ci réew mi euh, te lii nga xamante ni taxaw na fi bu dee nit ku ñuul moom moo nekk ca hôpital bi tubaab bi xooluñu nit ku ñuul jamono bii xooluñu ki ñuul la xooluñu kii ku weex la wala kii ku rouge la wala kii ku ku ku ku bleu la ku kuñ ci war a faj dañ lay faj kon ñun am nañ ci cër bu rëy ci solidarité boobu muy association muy daayira ak lu mu mënti doon kon war nañoo mën a jóg wanewaat suñu bopp d'une autre part parce que tam yeneen communauté yi ñu ngi koy def albanais yi ñu ngi koy def euh, marocains yi ñu ngi koy def donc te ñun ñun ñooy communauté bi nga xamante ni bu ñuy wax solidarité ci ñun la fekk baax kon ñun ci li ñu xam waruñu bàyyi ñeneen di ñu ci jiitu moo tax may wax ni association yi nga xamante ni tàmbali nañ ko ñu gis ko wax dëgg yàlla euh, ñu publier ko ci Facebook bi et tout ñu rafetlu ko lool di leen ci jaajëfal di ñaan yàlla lépp lu ñu ci def yàlla na ko yàlla suñu boroom ful mu raw mu raw lu ëpp loolu ñu ca def waa Conegliano mu gis waa Parma ñoom it ñu ngi def récolte récolte fondi pour dimbali le système sanitaire euh, ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy def ñu yëg ak ñu bañ a yëg mais xam nañ xel ni yeneen association ñu ngi koy def mais ñu ñuy lancé waat beneen appel en tant que CADES aussi euh, d'ailleurs on a fait même ay benn vidéo boo xamante ni dinañ ko jàllale euh, parce que au moment où am na sunu ay naataango yu nekk Sénégal euh, tënku mënuñoo ñëw ndax amuñu vol euh, bàyyi woon nañ fi ay njaboot bàyyi nañ fi soxna bàyyi nañ fi doom euh, te jamono bii pour nga génn sax dem nduggi sëñ Pape problème la rawatina amaana ci ñoo xamante ni amuñu daamar gu nu mën a taal pour dem ca ma dem ci supermarché yi ñuy ñaan rek dëkkandoo yi ñu nekkal nañ leen jàppale xool laajte ñen ñoo dem Sénégal Euh, ak soxna si yenn jafe-jafe la am pour mën a jàppale leen ci denrée de première nécessité yi donc kooku it beneen forme de solidarité la ci ci suñu biir it am na ñeneen ñoo xamante ni amaana seen yaram sutante na mënuñoo génn am ñeneen ñoo xamante ni xëy na caabi féete na leen ginnaaw ci loo xamante ni xëy na seen sago la wala du seen sago waaye seen njaboot a ngi foofu te am na amaana am na lu ñuy soxla ñu jéem leen a jege xool seeni yitte ak seeni soxla ñu taxawu leen jàppale leen ci loolu yooyu yëpp ay forme de solidarité la yoo xamante ni ça ne nécessite pas beaucoup d'effort mais sentir rek que ni kii sa mbokk julit la kii sa mbokk sénégalais la war naa koo taxaw ci situation bu difficile bii suñ pap man damay wax damay wax sama euh, collègue tubaab yi ma ne leen euh, deuxième guerre mondiale bi bomb yi di daanu nit ñu ko doon nettalee ak nañu doon gis ci film yi oto yi di jàll ci biir koñ koñaan yi ruqu ruqaan yi di wax nit ñi Euh, toog leen seen kër man loolu laay dundaat fekkewuma deuxième guerre mondiale waaye loolu laay dund ca la ma gis ci film yi di gis fourgon bi di jaar ci biir koñ bi naan ay rest euh, restate a casa state in casa state in casa donc da ngay dem ba yow danga naan ñun ban àdduna la ñu nekkati lan moo xew boo gisee nag ñenn ñi mel ni euh, mbote mu réer yaayam di taxawaalu ci mbedd mi di di di di def yoo xamante ni naan noonu du duñu toog suñu biir kër wa ilaa nga ne yow da ngay dem dox yi parce que tubaab bi mënuñu laa tee danga am si soxla yooyu dox c'est parce que da ngaa comprendre gul lan moo xew ci àdduna bi c'est parce que am naa yaakaar ni bu doon xam nga am médecin boo xamante ni mën na laa dee ci suuf loo la ñuy daj ñoom nga xamante ni ay quatorze heures de temps la ñuy liggéey du ñu nelaw du ñu lekk du ñu naan seen la ñuy lekk sax pro euh, euh, ambulance moo leen di jëlali pizza dugal ko ci ambulance bi pour ñu protéger lekk gi pour ñu ñëw ñoom ñu këlamtu ko lekk ci tuuti soo ko nekkaat ci seeni liggéey donc nit ki bu demee ba àgg ci yenn niveau yi di laam-laamee ndax feebar bi am na wala feebar bi amul man je pense que euh, ñun dañoo nekk feneen ñun dañoo nekk feneen seetaan naa benn vidéo buy wax naan ay romb na Cees ak romb na Tivaouane romb na Njaasaan romb na Laayeen romb na lii romb na lële il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent parce que lii du mbir moo xamante ni mbiru caaxaan la ndax nit a ko créer wala loolu ñun duñ ci àttu duñ ci àntu ndax vraiment du suñu du eggaguñu foofu fi ñu toll mooy aar suñu bopp aar suñu bopp foofu la ñu toll ak xool naka lañuy ñuy jàppalante ci suñu biir rawatine nag suñu euh, mbokk yi nga xamante ni ñu ngi nekk Euh, prévalentemente ci euh, centre bi ci sud bi ci île yi nga xamante ni euh, revenu yañ daan am ña ngi koy am ci daan seen doole ci marché yi ak yeneen ak yeneen vendeur ambulant yi tey jii loolu yëpp taga témbe na loolu yëpp mënatuñu koo am ñu xool naka la ñuy mën a utee ay jàppalante yoo xamante ni danañ leen fekk fa ñu nekk dimbali leen jàppale leen def forme de solidarité boobu parce que fa ñu dëkk danañ fay afito fa ñu dëkk war nañoo lekk fa ñu dëkk war nañoo am yeneen ak yeneen i soxla yoo xamante ni danañ ko am et par rapport à ça même euh, en tant que CADES am na benn idée buñ ci génnee démb ci suñu waxtaan bi ñu def démb pour xool naka la ñuy mën a bindee bataaxal FAO pour mën a jàppale prévalentement ñi nga xamante ni ñu ngi nekk dans le centre ak dans le sud ak ci îles yi ci ay ndimbal yoo xam ni duñu manqué lekk duñu manqué leneen ak leneen kooku incha allah Euh, l'autorité diplomatique muy son excellence l'ambassadeur ñu xool ba xam FAO nan lañu ñu mën a dimbalee parce que for nañu ci wewu nag ni ci suñu benn naataango boo xam ci la bokk ni ñu amoon na ay temps mu amoon yenn jafe-jafe vraiment FAO daf leen dimbali da leen a jàppale jox leen ay ndugg jox leen ay carte yoo xamante ni mën nañ cee ndugg ak yu ni mel ah côté économique bi nga xamante ni vraiment yaa koy junj sànq it côté économique bi nga xamanteni yang koy junj sank yi mënu ci ñak te lépp mënu mënu delluwaat mel melna mu melon ndax li tubaab yi ñu ci bari dañ ci jang keroog dama dem ndugu genn taxaw dajé be sama ben ex collègue mu taxaw musul wax ak man ci lu jëm ci diiné mu taxaw ak man ba ci yag naan ma ñu ngi ñaan yalla suñu borom mané ko mais euh, dafa am ben philosophe Nietzsche da doon wax naan bu crise amé jumaa yeeg jàkka yi dañuy fees ak église yi waaye bu crise jeexee rek ñëpp fàtte yàlla mu ree ma ne ko mais effectivement parce que tey yaa ngi may wax naan ma euh, preghiamo preghiamo ma euh, qualche anno fa du lii du woon sa discorso quoi beneen façon discours nga ma daan wax donc yàlla moo fi nekk bi fi nekkoon démb moo fi ne bërki démb moo fi ne tey te moo fi ne suba ëllëg donc ñun loolu nga xamante ni noonu lañ ko xamee nii yàlla suñu borom mi ngi fi ñun xëy na loolu moom moo ñuy dimbali moo tax li ñuy ñaan rek mooy euh, yàlla mi nga xam ni moom moo ko fi teg moom xam na dañ koy ñaan moom ci yàlla suñu borom moom mu teggi ko ci teg anam bu sell anam bu bu boo xamante ni ñun dégg rek nañu ci doy waaw yàlla na ñu ci dégg rek doy ci feebar bi euh, bu dégg nag bu la ci boo bëggee mu doy la ca dangay tegu ci anam yi nga xamante ni moom lañ la teg mooy mesure précautionnelle yi disposition yi ñu la jox Euh, auto certification bi ñu la jox bërkaati démb maa ngi wax naan auto certification <laughs> yooyu na nit ñi def attention parce que contrôle yi dafay gën a sévère lu ñuy gën di àndaare avanti contrôle yi dafay gën di sévère parce que euh, moor yi li tax mu gën a yokk nii yaa ngi koy junj sànq c'est parce que dafa am benn progresso avant euh, décret bi di génn te décret bi mënul mettre en valeur wala mu contenir progresso boobu loolu moo tax nag progressé boobu moom mooy commencé di feeñ nii fii ak ay trois quatre jours c'est normal progressé boobu feeñ parce que nel tempo am na ñu bari ñoo xamante ni contaminare nañu ñu bari te yëguñu ko ndax yëf yi d'après ni ñu ko expliquer mun na nekk ci yow sax te doo ko xam mën na nekk ci yow te doo ko xam nga nekk ci kër gi di tëñëx tëñëx di lëjëx lëjëx ba ba ba ba fan yi passé buy denc ci yow doo ko sentir doo ko yëg comme mën na nekk ci yow indil la nga fekk la pathologie indil la benn coono nga am fièvre nangam ak nangam mu sonal la nga woote ñu jël la yóbbu la defal la tampon gis ni fièvre bi alte na ñu gis ni euh, da nga positif ci coronavirus donc am na beaucoup de manifestations yoo xamante ni nit ñi il faut qu'ils informent aussi par rapport ak symptômes yi par rapport ak euh, euh, na na na naka nga ko mën a contenir et puis boole ko ak moytu moytu moytu moytu maintenant xam naa dinañu ñëw ci kanam incha allah dinañu ñëw ci euh, vraiment euh, décret bi nga xamante ni président def na ko euh, te it di war ko accompagner ak décret yi applicative yi nga xam ni actuellement ñu nekk ci ay waxtaan xam ñun bala ñoo tëdd incha allah danañu jot protocole bi mën koo jàngat ko bu baax mais li leer Euh, organisation syndicale yi def nañu protocole d'accord ak euh, le président Conte. parce que jamono nous ñuy wax euh, économie bi daf ko daf ko sentir bu baax baax bu baax baax sax ndax Brescia ak Bergamo fofu nga xamanteni pratiquement c'est le centre de l'industrie bu ñuy wax l'industrie italienne deug deug deug deug deug c'est le centre de l'industrie azienda yu genn wàll gi yëpp tëj nañ bu ma yeboo sax ni yëpp nag ak quatre vingt dix pour cent tëj nañ tëj nañu parce que euh, d'après le protocole permettre nañu ñu mën a euh, def ricorso à case intégration yi ubbi nañu case yi gouvernement bi ak région yi euh, teg nañu ay stanciare nañu pratiquement ay fonds yoo xamante ni ñu ngi ko jubal ci loolu ci biir nag am na ay ñoo xamante ni ay ay ay ay ay chakaali lañu chakaali lañ leen di wala fasen njéer yi ñoo xamante ni vraiment dañ ciy profito parce que di nga ci gis azienda boo xamante ni euh, avant coronavirus bi dafa amoon manquance di wala di ordine profito ci wax ni euh, causale bi covid 19 la ala kulial euh, danañ ci profito ñoom am ci dara mais en aucun cas ñun li nga xamante ni moom la ñuy diggal sunu sunu mbokku taalibe yi li ñuy déglu diggal sunu mbokku taalibe yi mooy ne que euh, bu leen firmaare ci biir azienda yi lenn loo xamante ni xamu leen ko parce que am na ay azienda yoo xamante ni dañ yi dañuy nëbb ni ñoom fay contribution pour euh, amortisseurs yi pour bañ leen a feeñal dañuy demander seeni ay laboratoires yi pour que ñu usufruire seeni férié ba même boo leen nee sax ah man de una settimana férié laa yore ñu ne la vai lo stesso quando vai in meno dopo cercheremo di recuperarli dinañu fexe ba nu ñu ko récupérer après pour que ñu bañ leen a démasquer loolu aussi yow laboratoire bi yow yaa ciy perte parce que boo jëlee férié yi tey actuellement nga toog ci kër gi jël férié ba pare toog ci biir kër gi mënoo génn yow mënoo sax euh, dem ci ci ci ci Euh, négoce bi nek fi à côté mëno fa dem nga jël say férié tok ci biir kër gi bis bo soxla férié pour dem Sénégal dañ la koy bañal parce que amatu loko <laughs> parce que mënul mënul nek mënul nek donc il faut que gaay ñu def attention et puis ñu xam aussi que ni euh, amortisateur yi dañu bëri fa parce que amna casse ordinaire ordinaria casse na casa am na fondo integrazione eh, salariale mooy FIS eh? am na fondo bilaterali yi mooy interbilaterali yi foofu Toscana defe naa eh, EBAV ngeen am suma ma juumul Venezia EBAV fii Emilia Romagna am nañu EBER donc ñoom ñoom it fondo yooyu dañu war a ay artisan yi la ñu ñoom fondo yooyu déjà ñu ci bari fayuñu. ñun ñun Toscana EBRET la ñu am EBRET. EBRET gis nga ebret yooyu ak eh, eber bi ay ay artijaani lañu yooyu lañu yoo xamante ni contrat bi ñuy appliquer dañu war a di fayal laboratoire bi vingt cinco euro al mese ci biir ci busta paaga bi al mese te ñu ci bari fayuñu ko te tey jii affaire bi en principe dañoo waroon a bind fondo bi pour que fondo bi couvrir laboratoire bi intégrareel ko salaire am léegi nag fondo yooyu en principe dañ leen a war a fayloo arretrates yi ñu war a verser laboratoire bi yépp parce que altrimenti kenn du reconnaître laboratoire bi euh, kii am Cassa Integrazione donc situation yi ci nekk sindacalmente ñun man dama gëm ni même dans le syndicat tey jii la suñu liggéey gën a gën a tar yàlla mi ñu tiim seede na lundi ba tey jii noppaliku wuñu téléphone bi dañ koy chargé métage demi journée téléphone bi déchargé na pourquoi parce que au-delà de l'assistance assistance bi ngay def ci travailleurs yi di di leen euh da ngay dem ba yow da nga naan sax man est-ce que syndicaliste la est-ce que man duma duma assistante sociale parce que da ngay gis kat bu lay wo bay joy parce que dafa dégg ben collègue am boo ci même diitaa bi la nek bo xamanteni dafa am coronavirus ñu jël ko récupérer ko yobbu ko kat yi ragal a liggéey yi da lay wo bay joy yow sa devoir moom mooy nga defal ko dalal ko xamal ko ne ko as li ñëw na fa nangam ak nangam disposition yi teg nañ ko bind naa as yende bi nangam ak nangam donc ñun période bi liggéey bi dafa gën a incrémentaré wu dafa gën a yokk rawatina nag sans compter sa liggéey bi nga daan def bo à part que c'est vrai actuellement nii yu bëri da koo dindi teg ko ne le ay lecture Boustapha ak nangam nangam ku la woo da ko naan non su defuma loolu awma jot bi ak dimanche Fi fi laa toog ci bir kër gi samedi ak dimanche génn ma mais téléphone bi noppalikuwul te xam naa ni sëñ pap yewit kazalika keneen noonu ku mel ni Massaer noonu keneen noonu nit ak lay woo aussi ci permis di soggiorno yi parce que ma nga Sénégal permis som di waaj jeex te am na benn amna am na deeroga kooku it faaw ñu baaxee ko suñu mbokk taalibe yi am na deeroga boo ministère de l'interne def na di trenta giorni ak di sessanta ñi nga xamanteni dañu war a dugal ci tari naan sa te yoroon këyit yi jóge sénégal wala feneen ak feneen te këyit yooyu war a man duñu ma woye dama leen naan écoutez am na déroga non vi préoccupate maanaam psychose bi panique bi préoccupation bi angoisse bi nga xamante ni liggéeykat yeeg laboratoire yi ñu koy dund ak affaire bi moom moo metti psychose boobu moom moo metti donc affaire bi li ñuy ñaan yàlla suñu borom rek moom mooy yàlla ñu parce que amuloo beneen instrument de mesure bu dul tënku ci li nga xamante ni moom mooy disposition yi sëñ Pape. dëgg la Pape Makhtar jërëjëf euh, defe naa relation bi nga def am na solo lool noo ngi fàttali auditeurs yi rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora euh, di ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Pape Makhtar Tall ci Parma ak Pape Demba Dia fii ci Pontedera Euh, may fàttali liggéeykat yi nga xam ne rek ñoo féete itali que euh, am na communiqué tam bu wàcc bu wanee ni IMSI tëj nañ ko daanaka IMSI léegi mënatuloo fa am accès ci sportel yi loo soxla mu jëm ci wàllu IMSI euh, par téléphone nga koy def ñu suñu boor yi Toscana mel na ni centro per l'impiego itam tëj nañ ko daanaka lépp looy def par par mail nga koy def ndax daanaka euh, ñoom ñëpp dañoo commencé def li ñuy wax smart working maanaam dañoo wàññi liggéey bi wàññi boo xam ni daanaka personnel bi pour mën a respecter normes yi ñi xam ni moom la loi bi joxe donc euh, personnel bi yëpp mënuñu nekk ci barab yi looloo tax sax boo leen xoolee ñaari semaines yëpp IMS daanaka dañ doon filtrer euh, lii nga xam ni moo di utens bi daan tugg ci biir. Euh, ba ñun Toscana sax fii région bi am na beneen loi bu bees bu mu def ndax maa ngi wax sànq personnel médical bi bokk nañ ci ñu gën a sonn ci wàllu ci wàllu contamination bi euh, am na dogal bu ñu wàccee ba fi mu ne nii daanaka visite yi sax euh, visite yu bari dakkal nañ ko ci ci médico médico médico personnel yi daanaka léegi diggante médico bi ak ak ak ak ak ak ak nit ki Euh, euh, lépp par par par visite téléphonique la bu la bindalee ordonnance daf lay jox benn numéro boo xam ni moom ngay dem joxe ci pharmacie bi numéro série bi daanaka euh, ñu jox la garab gi directement dootul am richetta richetta électronique bi pour pour xamal leen ni leen daanaka loolu yëpp ñu ngi ci jublu pour pour pour pour pour pour éviter nit ñi ñuy am contact ma wax leen ni leen Euh, rien ne sera comme avant dafa mel ni boo leen fàttalikoo 2001 bi xew-xew yi amee New York euh, euh, après 2001 monde bi dafa changé lii nag dafa leer ni société bi ñu jëm bu lii weesoo dafay soppeeku yàlla dogal tey ji ñun ñi nga xam ni ñëw féete Italie Euh, sama mag Ali Baba mi ngi koy wax euh, sànq ndeysaan mi ngi may yónnee message di ma wax ni ñun communauté sénégalaise bi dañu nekk benn société boo xam ni euh, dañoo nekk société à bu bokkul ci bu intégré ci ci biir souche sociale dëkk bi loolu nag yaakaar naa ni lii occasion la pour ñu ñu rattrapé wu ndax man gëm naa ni tey jii. Euh, gis ngeen àdduna bi ñëpp ñu ngi wax ñaan pap bi mu ngi recueilliru ñun ñu am kilifa goo xam ni am ay kilifa yoo xam ni man dama gëm ni ñooñu bokk nañ ci ñu war a changer àdduna bi man de gëm naa ni Cheikhul Khadim euh, euh, lii nii am na lu mu ci war a dox loo xam ni ay taalibeem buñ ko doxee àdduna bi yëpp xam ni ñun ñii am na luñ ci def waaye nag. Euh, li ñuy wax il faut ñu xam ak am dégg-dégg ndax dégg-dégg dafa am solo lool tey jii damay dellu siwaat ci kàddu boobu di ñaan Modou Mbaye aussi bu fekkee am na ñu bëgg a dugg mën nañu ubbi ligne bi ndax waxtaan la vraiment bu ñu señoon tam gaa yi bëgg participer yëpp mën nañu participer à travers Skype bu rajo Xassida online Touba Monde bi boo duggee boo wootee ñoom dinañ la rappeler incha allah te bu ñu duggee ñu fay seen rajo ndax Euh, sunu kilifa dafa joxe ay directives ak ay recommandations yoo xam ni yu leer la génne xaalis jiitu ni moom kat yoon waa ngi nii na ci ñëpp taxaw tey jii gis dëkk yi ñu nekkal donte Sénégal dëkk bu pauvre la dëkk bu tuuti la mais nag euh, am na foo xam ni ñun taxawaay boo xam ni buñ ko amee adduna bi yëpp dañuy xam ni euh, Sénégal. donte dëkk bu tuuti la waaye dëkk bu neexa bu ñuy gis la war nañ ko mën a gis nag à travers le mouridisme ndax le mouridisme tey jii orientation la boo xam ni nit ku ci tënku ku la gis daf lay roy euh, na ko suñu xalif defee man dama bëgg ñu dugg waxtaan ci loolu maa ngi gis léegi am na benn breaking news bu dugg xaw ma ndax confirmé nañ ko wala confirmé wuñ ko ma bëggoon ku mel ni sëñ Ablaye wala suñu mbokk yi buñ ci amee lu wóor ndax dama dégg ñu ne Euh, sëriñ euh, sëriñ abo abu baraka ji def na communiqué pour wax ni euh, annulé nañ tam màggalu kas Rajab bi mu nekk loo xam ni bu dee lu am la tam lu jaadu la ndax ni ko suñu état diglee ndax su suñ suñ Muntaxa waxoon na ko jamono yële ñun dañoo nekk ci dëkk boo xam ni yoon moo ñu tënk am na loo xam ni ci yoon woowu lañu ñu war a doxal donte xëy na décision yi yeex nañ ko jël ndax tey jii yaakaar naa ni sunu état taxawaayam bu ko taxawee woon ca début ba heure bii du ñu toog ay une semaine di annuler ay daaka ay euh, appel layen ay euh, li ñuy wax ñu tuddati euh, comment dirais-je màggalu màggalu kasra jab ak yeneeni activité GMJ bu bu bu bu bu bu bu bu communauté chrétienne donc état bi parce que ça fait plus d'un mois man boo leen xoolee sama Facebook maa ngi lancé appel dëkk yi responsable yëpp ñu ngi créer seen comité de crise commencé eh, eh, taxaw di filtrer seeni vol yi ñëw di contrôler passagers yi ñëw waaye boo leen xoolee xoolal semaine bee passé ñaari vol yi ñu wane ñu wàcc Cap Skirring boo ko gisee sa yaram day daw loolu eh, nekkoon na ay taxawaay yoo xam ni vraiment suñu état defe naa ni war nañu jógaat ci fagaru aar xam valeur u euh, doomu aadama ak bakkan ñu toll ci ci ci ci ci loolu bokk na ci li li tax Afrique xaw a manqué euh, euh, train wu développement ndax tey jii boo mënul xam valeur u doomu aadama ba tey jii mu mën la jaral nga investir ci ci yenn secteur yi tey jii da ngay xool xoolal Sénégal koo fa gis muy jaay ndaanaan fan nga koy gis muy jaay ndaanaan ci ay xew-xew muy génn di maye ay deux millions di maye te tey jii mënoo gis un sénégalais jóg mu jaral ko mu jël xaalis bu ne lëmm créer par exemple des choses yi nga xam ni dafay dafay jëriñ communauté bi ci ay secteurs yu stratégique lu mel ni santé euh, euh, euh, tey jii ku mel ni suñ am satu gis ngeen suñ am satu xasida na mu defoon Touba génn jóg kenn yëgul mu tabax defar benn centre boo xam ni

yoo xam ni yu yu yu mucc ay fii di leen indi Europe wala mu di leen yóbbu Amérique bàyyi ay mbokkam Sénégal kooku defe naa ni wàcc na àndam tey jii man dama gëm ni euh, ku mel ni Cheikh Isaaxa Mbacké di rak si sëñ Muntaxa noonu mu def ngeen xam ni tey jii créé na euh, benn clinique bu performant boo xam ni tey jii léegi mën naa ni kilifa yu bari daanaka foofu la ñuy dem dootuñu dellu dootuñu dem Dakar di faju loolu loolu la dëkk wara wara wara wara di yengo vision bobu la khalif général di def nak tay ji ndax khalif général bo len ko xolé xol len limu def créer ben projet bo xamni université la bo xamni bir Touba de bo xamni valeur 37 milliards mu tek ko génne khalis la ca def ken def ko ci Cheikh sidine Mokhtar non la dan def bo len ko fàttalee yàlla yàlla yokki leram ba Sénégal amee inondation un milliard cinq cent la jël jox gouvernement bi Serigne Saliou mbakke noonu la daan def Serigne Abdou Lahad noonu tey jii ba ba seen waajur wu tedd ba Cheikhul Khadim boo leen xoolee ba ñuy wax jafe-jafe yi sa yi France amoon ñuy wax dañu naroon euh, euh, euh, dévaluer xaalis mu génne cinq cent mille ci jamono yooyu jox jox ko jox ko état état française waaye nag ñun xëy na léeg-léeg dañuy focaliser wu léeg-léeg trop trop trop ci li nga xam ni moo di ku ci nekk sa sa sa euh, léeg-léeg léeg si sa sa fi bopp bañ a xool lii nga xam ni moo di moo di moo di moo di euh, euh, yoon wi nga xam ni moom la ñu sëñ bi di teg ndax nag sëñ sëñ sëñ tubaade wan nañu yoon woo xam ni man gën naa ni buñ ci tegoo tey jii ñun ñoo nekk référence su monde bi waaye duñu roy ci kenn waaye nag mel na ni ba léegi Euh, euh, sëñ bi li mu def ci ñeenti fan yi euh, sëriñ si am na ñuy xaar wala bokk ñu comprendre gul yoon bi ba war a jóg taxaw moo xam ci wàllu sensibiliser cet jóg taxaw créer des mouvements de volontaires yoo xam ni tey jii bu ñu neexoon Sénégal waxuma la waxuma la waxuma la waxuma la waxuma la coronavirus sax waaye yenn xeetu feebar yi dootu fa am tey jii li ñu waroon def mooy njëkk désinfecter Touba ba mu ne cal génnee xaalis génnee matériel teg ko ba nga xam ni tey jii nit ñi dañuy daw si di ñëw la Touba waaye dootuñu dootuñu dootuñu dootuñu ragal di dem Touba loolu nag dama ragal ni dafa des vision bi xalif bi discours bi mu defagum euh, euh, ñu topp ci ay euh, wax ne am naag amul ay sëñ Touba la yaakaar ak ñu ñëpp sëñ Touba lañ yaakaar waaye dafa am jamono joo xam ne bu tolloo dañuy toog xool sëñ fan lay waxee ñu am dégg-dégg mu mel ni am na suñu jëw jëwriñ ju nekk ci biir de salaamaaleykum waaleykum salaam ah sëñ Ablaye ñu ngi jaar أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله ومعكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسن حسين من مكايد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مدرر شفي الأمة في البر والهدر ليس لي بتسليم بلا هدد في الآل وسيء وسلم من البرر أمة المصطفى أما يجر لهم سوى عبادات واغسلهم من الشرر واترك لخيرهما شيطان في أبد ولتكفيهم كل من يستر من, من البشر ولتصرف داء من مرضى الجميع به واصرف لهم منتبات الأمن والبشر ويت القلوب ذوي الإسلام في أمن والتكفين كل ما يفضي إلى الهدر وسل دبا بتسليم ألي بمن لهم تما والتجف بالسف والدرر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله آمين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته loolu mel ni daal waxtu bi moom bu jotee yaa yaa ñuy indil yaa ñuy indil garab gi. <laughs> ndeysaan waaw lii de moom moom li ngeen di wax rek xam nga. suñu borom moom xaar bu problème boobu. mooy solution la bi mu ne su ko ñàkk bañ a jël. <laughs> Eh, ñooñu ñoo ngi lay jóg sëñ Pa Matar ñu ngi leen ma sow coono yi. jërëjëf. <laughs> yàlla yàlla yàlla jamono ji moom. jamono ji moom ñëpp xat nañ waaye rawati ngeen rawati ngeen yéen yéen moom wax dëgg. xam nañ xam nañ baax li ngeen di dund ndax mhm. euh, nit ñi nag am naa ngeen déggal ku nekk ci lëndëm moom gunóor bu ne ci lëndëm moom làmp buy tàkk ngay bañ a gis mhm. mhm. euh, na maa ngi déglu ci métaphore boobu waaye nag euh, yaakaar yaakaar rek xool rek nit ñi ci yaakaar ci yéen ba di ko wërsi ci yéen yàlla na ko yàlla def ci yéen ndax amiin amiin nit psychologiquement rek da nga wàññi jàngoroom ju bëree bëri dëgg la waaw kon nag yàlla na leen yàlla fay ndax yéen a ngi def lu am solo lu xam ni wax dëgg yàlla ñëpp ngeen ci wóotu ñëpp ci wóotu waaye du mas wax dëgg sénégalais yi biir réew mi ndax li ñu nekk metti na waaye nag euh, sant yàlla ginnaaw ñu ngi nettili nettali mm-hmm. jàmbat moom kafane rek a ko def waaye ñoo ñoo wóote moom nañ sant yàlla te xam ne yàlla ngi ñu suturaal ba tey yàlla ngi ñu aar ba tey yàlla na koy continuer def Mhm. te teggi bala bi ci aduna bi teggil ko yëpp rek na ko teggil ñu def yëpp rek ndax mhm. moom moom moom lépp moom moom lépp amin amin waaw waaw ñoo xam ne ngi leen di jaare baax xam naa li nga doon maa ngi leen doon tawlu bi ngeen di tàmbali mhm. ci waxtaan wi sëñ Pape Makhtar def yëpp ak li nga def ak ci jàngat uh, mbirum sëñ bi ni mu ko waxee ni mu ko defee ci àdduna jooju nga xam ne dimbal loolu nga xam ne def na ko ci biir Sénégal Euh, ak information boobu nga doon wax maa ngi maa ngi déglu léegi ci breaking news yi sëñ Ahmadou Badawi moo doon def euh, conférence de presse bi. Mm-hmm. mel ni dafa ne sëñ Abou Albaraka dafa ne nañ màggale ci kër yi. am na nag mu dagg wax ji. Mm-hmm. ba ba ba safaane safaane wax ji safaane wax ji maanaam am na ci koo xam ne nam dagge wax ji xam ne information Pape dafa doy waar information dafa doy waar ak yéeme na koo xam ni mu dagge wax ji dafa mel ni sëñ bi dañu nañ màggal Kazu Rajab nañ màggal si waaw noonu la ko daggee noonu la ko daggee ba posté ko sax biir Facebook donc euh, waaye ñun jullit ñu war a tënku ci jaa yulli seen amono jaa um fasin bi na bi fatt bayinu rek nañ nañu leer lu a wax ndax léeg-léeg nga dégg wax joo xam ne wax dëgg nga naan xam da nga naan à quel à quel fin à quel prix à mm-hmm. euh, wax dëgg xam nga sëñ boobu kan man maa ngi doon jëm a gëstu sax joxoon na ma sax numéro ma jëm laa contacté ngir ñu jëm koo mu mën a dugg mën a leeral ni moom it génnu tré bi ba naan ma nga tubaab ma nga yooyu te soxna soof si def ci benn audio wax ni xam na ko xam nay soxnaam yaayam sarxal nañ ko sëñ bi waaj mi waaw comme koo koy sawar toon na sant Diop sëñ bi ko nee na nee na nee naa fan yi moom jóbeen yi daaneel nañ njaayeen <laughs> yi njaayeen yi njaayeen yi ñoo tëj at at meeg dragon yeeg dibi yeeg waaye fi mu ne nii daal sëñ bi waaw loolu xam nga dama flagrant sëñ Pape à quel point c'est-à-dire lu mu ci lan la ci am yéeme na lool sax dama mujj ma ne xëy na doomu bàjjanam la hmm? Nah, mais ya, ya, ya, eh, eh, eh, nag am na loo xam ne kàllu doomu bàjjen weesuut nag yaa mën a lekk. dëgg la. mais donc am na loo xam ne bu dee ñëpp la am bépp la soxal si bi taf ga day yam te wax dëgg wax dëgg dafa bi boore jóge boore kajoor bi di ni sëñ bi mhm. ni ko maam Cerno nuyu na la te fekk maam Cerno yunu ko nuyoo waaye xam nga rek dalukaay waxtaan ak niñ def ay sing sëñ bi ni ko fen kan wo nga fen de bàyyi ko moo gën ci jang alquran nga hmm. ya, xol kon léegi ban ampleur len nit ni toll li tax bala bi wacc c'est-à-dire ko sété suñu bir xamni ne lu ci bari ñoo toñ suñu bopp lu bari ñoo ñoo ci do fil ardi ba'da islaahihaa suñu borom dañu won bu len bu len yaq de suuf si ba gënaaw ba ma ko defaree ba mu baax mm-hmm. hmm, lu ne lañuy c'est-à-dire eh, injustice bi dafa bari ci kaw suuf te kenn ñu ñuy tooñ ndeysaan amuñu fu ñuy fajoo mhm. te ñooña bu ñu ñaanee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan waxoon na ni ñett ñi bu ñaanee suñu borom du ko delloo te kon na ca koo xam ne dañ ko tooñ moo xam jullit la moo xam yéefar la mhm. suñ borom du delloo ñaanam kon nag suñ bi injustice bi bari ci àdduna bi cest à il faut ñu defaat euh, respecter maanaam xoolaat suñu bopp defaat examen de conscience suñu bopp kenn ku nekk jàppal ni yaa tooñ léegi nga jéem a seet yow ci sa biir kaye bi ñuy bindal te xam nga ni lën lëne yaa ko def jor suba ëllëg suñ borom naan la iqra kitaabaka jàngal sa téere bi ñun liñ def kenn ku nekk yow conscient xam nga li nga def nga jéggulu sañ borom jéggulu sa morom ndax am na loo xam ne sëñ bi kenn ku ne ñu ñëpp tooñ yoo xam ne jarut xeet jarut xeet ñu naan bakkar bu sew ak bakkaar bu dijji ndax yu sew yi bu dajaloo doon doon lu dijji xeer yu sew foo koy dajale bu yàgg mu doon am montagne nañ nañ defaat kon donc examen de conscience ñun ñëpp suñu biir xam ne kenn ku ne toog nga nga wéet ci sa ruq jàpp ba sell jële si ñaar rek jéggul suñu borom tamuy tamuy tamuy luy sell luy dëggu tañ bañ cee dellu ñu ñaan nag suñu borom jële fi ndax lii kat suñ bi nii muy propagé wu euh, pap gis nga gis nga dat yi tey démb 173 de personnes ñoo dem de plus tey ñu ne 260 de plus c'est à dire man dama demande ah maanaam ndax quarantaine bi ñu teg sax est ce que efficace na. doy de. c'est-à-dire numéro yu yu yu doublé à chaque fois fii ci Italie gis nga Espagne ba muy dugg xoolal ñaata la fa ravagé pour le moment. Mm-hmm. te ça avance. Mm-hmm. waaw mm-hmm. xam nga sëñ euh, sëñ Ablaye. waaw sëñ Ablaye xam nga euh, mesures yi yu yu euh, stringent yi ñu waroon yi ñu jël nii actuellement. dañ ko waroon a teel a jël. maanaam. ñoo xawoon a euh, leem-leemal yëf yi mhm. parce que boo xoolee lu ci bari gouvernement bi dafa am ay mesures yoo xamante ni ci wàllu liggéey mhm. laata mu ko jël sax dafa am ay difficulté mhm. sëñ Pape xam na bu baax li may wax ndax yenn société yi nga xamante ni duñu produire alimentaire il était question que ñu tëj leen mais Confindustrie dafa bañoon léegi nag yëf yi dafa am ay xeex ci biir yoo xamante ni c'est des questions d'intérêt parce que dafa am na société bu nekk fii à Brescia xawma côté Bergamo nii boo xamante ni vice président wu Confindustrie moo ko moom yëf yi dafa garaaw mais boo xoolee sax boo xoolee hmm. eh, dooguma la sëñ Pape maanaam conseil des ministres balaa moo génne provvedimento gars yi seenal ko pour def pression ci ñoom. xoolal bi weesu dafa seen génn. <coughs> avant avant ñu tëj école yi. ñëpp xam deux heures euh, euh, presque mètre naata avant. di def pression ci ñoom. bu dimanche bi passé moo ci gën a bu moo gën a yées. avant ñuy tëj nga xam ni ñëpp xam nañ ko ñu doog ñu doog ñu doog ko génne. Mhm. waaw ma ma ma ma tëj rek maanaam xam nga bi nu demee nag ba nga xamante ni jaaxle nañu dëgg dëgg jaaxle nañu ci la ñu def nag euh, mesure yu bees yi ci la nag waa liggéeykat yi nga xamante ni ñu ngi nekk euh, métal mécanique yeeg yooyu daal di fipp ñoom ne lan moo waral ñu war a tëj ñii bàyyi yenn liggéeykat yi ñuy liggéey ñoom it ñu exposé wu au danger. Mmh, mmh. kon nañu tëj ñëpp. warul am liggéeykat série A ak liggéeykat série bi mais Conte daf leen wax ne leen bëgguñu grande distribution bi aussi souffrir parce que nit ñi bu ñu toogee ci kër yi dañoo war a lekk. léegi nag mesure yi bi mu egsee xam nga mesure munul munul euh, sóoraale la am démb ak bërki démb. léegi nag progresso boobu amoon démb ak bërki démb mooy feeñ nii tey moo tax yëf yi yokk nii. léegi mesures yi efficace il faut que ñu dem fii ak juróomi fan juróom benni fan semaine prochaine mm-hmm. pour muy soog a efficace mm-hmm. moom la mm-hmm. moom la di wax sànq ni am na foo xam ni bu ñu fa àggee ba ci picco bi parce que gis nga euh, contrôle yi sax tey euh, léegi la gën a sever que fan yi ci ginnaaw effectivement waaw parce que euh, mesures yi dafa bett presque corpo armata bi ba nga xamante ni ñoom jëluñu woon disposition pour baare yenn tali yi tëj yenn koñ yi tëj yenn kii yi mais tey moom boo génne tey jii di nga gis ni wax dëgg yàlla jël nañu seeni matuwaay bu baax a baax. ay ca bisimilah. ah loolu de xam naa ni xam naa ni eh, doy na léegi kon dafa mel ni ñun euh, merci daal lañ jàppale léegi population civile bi. ñoom seen i intérêt maam li naan jënd seen sa scrupule daal ci ci seen i loxo lañ nekk ndax bu dee seen i économique moo leen gënal euh, intérêt sanitaire nit ñi. Hmm. boobaan da nga xam ni kon ñi nga amal affaire maanaam secteur capitalisme bii fi nekk nga xam ni daanaka euh, kii gën a am day gën a am kii gën a ndóol di gën a ndóol loolu mooy mooy woy ba léegi lii suñ Pape waxoon léegi nii rien ne sera plus comme avant. Hmm. jàpp naa ni parce que système système bu def cinquante ans. suñu borom ci xarañam mooy mooy mooy gisoon nañ fi marxisme léninisme gisoon nañ fi communisme gisoon nañ fi socialisme yooyu yëpp dafa def kon même capitalisme bi day day jeex. Hmm. day jeex yi bii ngay dëgg day jeex li sëñ mu am sëñ Sall doon wax ñu tënkuwoon ci luy xew di xew yi c'est-à-dire il faut aussi euh, li sëñ Pape waxoon euh, mbirum maanaam mbirum sëñ Tuubaa da war a am yoon. Hmm. cest à dañoo war a dem de cest ci ci occasion bi ñun war nañoo am beneen taxawaay boo xam ni eh, damay wax ni dama daan wax ni maanaam adduna fu mu yàqoo damaa jàpp ni man Tuubaa la war a defar ngir defari ko. cey dëgg la de. waaw kon tey jii sunu sunu kilifa yooyu war nañoo am beneen taxawaay boo xam ni buñ ci jugee ci lii sëñ bi danañ am beneen gis-gis ci. l'islam ham l'islam ñun dañu wara redoré le blason de l'islam parce que l'islam sëñ bi ñi nga xamni ñom lañ ko joxon japp ni ñoko ko waru mm-hmm. la preuve gis nga gis nga kaaba gi niñ ko def démb sax maa ngi def benn batuta ni euh, kër yàlla moom buñ ko tejé fan lañuy fajo wit la laram bu dee dañ ko tej te ba fa yeufar yi ne sax dañ ko daan kaba gi dañ ko daan wër mm-hmm. ta ku xam batin xam ni kaaba gi buñ ko wërut problème dana am mm-hmm. ndax dafa jàkkaarloog kam baytul maxmuur bi nga xam ne mu ngi ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laylatul mi'raaj dafa waxoon ni kaaba gi lii ngeen di seen takk ndeer la jëkk jëmm jàng ci kaw mm-hmm. te foofa ñaari junni ma ñetti junni eh, malayka dañ fay dugg par jour te ku dugg tey doo doo duggaat ba ilaa yawmi diin mm-hmm. loola moo ni makk ci kaaba gi léegi nag bu dee lii ci suuf moom <laughs> taxut mu demee na mu daan demee ko xam tooreeta ni muy doxee hmm. toore supérieur toore toore inférieur bi ci kaw bu dee daw bi ci suuf doxut incroché mooy am hmm. te ku ku tëdd ba guddi ba de wéet ak suñu borom da nga xam ni am na luy xew cest am suñ baaw am na luy xew loo xam ni walla yeen agim nit yi àdduna yi xamuñu ko hmm. maanaam changement de système mi ngi am te suñ borom ngi koy amal ci ni mu ko bëggee. Mhm. doomu aadama dafa demoon ba jàpp ne il est le maître du monde. Mhm. ba tax ñu propager fi li ma doon wax injustice ñu propager fii li nga xam ni moo di homosexualité propager li nga xam ni moo di discriminalité propager li nga xam ni kenn mënatul dund sax sa diine li xew Inde gis nañ ko li xew Pakistan gis nañ ko li xew gis nañ ko li xew fii Europe gis nañ ko. seen complot yi ni def léeg-léeg mu senn gis nañ ko contre l'islam te ñun boo demee seen conseil bi il y a le droit de culte mm-hmm. am na ñoo xam ne mënoo leen xaj xañ seen i liberté xañ leen seen i droit ba pare bëgg nekk ci jàmm c'est impossible mm-hmm. kon war nañoo war a delluwaat euh, delloo suñu xel te xam ni ay nit lañ te ni ko suñ borom waxee woon du deñ bu ngeen mooy jaamuwut ma jël leen fii teg fi ñu ma fiy jaamu loolu moo moo tax ma bind leen bàyyi leen bu maa xalaqal jinna wal insa waaw buñ ti nekkut mu jëlee ñu fi ni jëlee woon ni mu fi jëlee woon nit ñi euh, afala may soro fil ardi dox leen ci mm-hmm. suuf si ndax ngeen gis fan mun laa def ak ñi nga xam ne te te te ay tonkat mm-hmm. demal demal Barcelone am na fa benn li ñuy wax la cita la cita ne la cita ci biir Barcelone am na fa dëkk boo xam ne ci souterrain la biir dëkk maanaam dañ ko ñoom dañ ko defaat tabaxaat ci kaw dëkk ci kaw mais ci suuf boo demee ay nit ñoo fa dëkkoon ñoo xamante ni suñ doon dalee faa wewel seen kër yi ak seen néeg yaa ñu nga fa. Mhm. demal wàccal Madrid wutali biir centre ba da nga fa romb armel yoo xam ne wallaahi man damaa xool ba soo c'est-à-dire armel yu réy noonu mosuma gis ci àdduna. Mhm. ñëpp tëdd. demal bàqee nañ la wan ñan ñoo gaañ ci en deux mille dix huit da jàpp ni fii ab guerre moo fi jaaroon. Mhm. kan moo tëral ñooñu mooy kenn mooy suñu borom subhanahu wa taala nañ ko delloo li mu moom. tubaab lu wax naan donner à César ce à César. mais na rendons à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est divin. waaw bu ko defee li ci des mbiri àdduna la ñu waxtaan suñu biir mën nañoo wuute diine mën nañoo wuute mais buñ àdduna lañ bokk nañ ko bokk liggéey loolu c'est-à-dire loolu mooy idée. Mm-hmm. États-Unis boo gisee mu mën a raw euh, Europe mën a raw yeneen c'est-à-dire doo dikk ñu naan la daa doog yi arrivé daa doog yi loo man lan lay wax c'est-à-dire Italie looloo tax mu tardé demal seen seen structure yi ñu ñëw ñooy ñooy liggéey ci administration bi ndax ban discrim lu tax lu waral boobu discrimination mm-hmm. ñu tardé ci lu bëree bëri yow boo egsee rek di doog essay c'est-à-dire loolu du tama yor bopp ni yow mm-hmm. ah, kon nag vraiment war nañoo war nañoo seetaat suñu bopp te ñu sensibiliser aussi suñ mbokki Sénégal yi euh, bi am na de dugg na Touba ak dugg na Touba nag lee man preuve yi taabul vraiment parce que wax ji dafa bari. Mhm. dugg na Sénégal dugg Sénégal wax ji dafa bari. mais li wër ba moom kuy dund Italie moom da xam nga ni feebar am na ndax li muy rey kenn xam na si ko gis. Mhm. waaw kon nag nañ sensibiliser aussi suñu nga xam ni soo fa moyens yi bariwut te am na loo xam ne mënatuñ leen ko tere ki nga xam ne dafa yor boolu caaxum di ko jaay ci la njabootam dund boo ko bëggee ne ko toogal si kër yi du toog du toog. ka yor moom nga xam ne la cay génn moom lay dundale waa këram boo ko nee toogal si kër gu toog mhm. waaw fiscalité biñ biñ biñ respecté looy fii nekkut Afrique nekkut Sénégal donc li nga mën rek mooy sensibiliser sa njaboot ñun ñu ngi fii waa Sénégal di ñu tiital ñun noo ngi fii di tiital waa Sénégal kon tan mbir mi mel na ni maa euh, ngi guddal day na waar moom sensibilisation bi yi ngeen ci def daal am na solo waaw waaw si Ablaye waaw maanaam beneen façon bi ma beneen tomb bi ma bëggoon a wax nag laaj naa ko sax jot naa ko laal ci biir tàmbali bi mu di wàllu solidarité bi nga xam ni moom la ñu war a moom moom laa yaakaar ni moom lañu ñu war a taxawee fii xëy na nag am na sax ñu ko tàmbali waaye eh, eh, xëy na ni ko tàmbalee mën naa am ni euh, informel bi bari na ci lool euh, ndax mën nag dama gëm ni ñun dañu bokk ci société bii tey Euh, ñu bari dañuy yaakaar ni fii santé bi c'est gratuite c'est pas gratuite c'est public waruñu confondre gratuité ak ak ak euh, euh, santé publique fi santé publique moom am ku fi feebar yoon dafa am droit faj la comme dafa nekk ci constitution bi comme ni nga amee ni ni la état bi amalee droit nga jàng ak nga am liggéey loolu dafa bokk ci constitution bi ñun nag ñu bokk ci dëkk bi euh, comme ni ma ko waxaati woon rek sànq maanaam nga waxaat ko insisté man dama gëm ni tey jii ñun dafa am taxawaay bu ñu war a am fii xëy na war ko am ci suñu communauté waaye war ko am ne confronti de la communauté italienne ndax nag itali jaaxle na jaaxle boo xam ni ils sont à genoux dëkk boo xam ni médecins yi dañuy jooy secours secours yi da ngeen di gis daanaka kenn taxawatul euh, est-ce que jaaduwul ñun ñu jóg taxaw wane ni ñun ci appartenance ci cos ci société bii la ñu bokk joxe benn geste de solidarité maa ngi wax sànq ni euh, am na dëkk boo xam ni jigéen ñi dañoo jóg dajale seen 600 euros dem joxe ko protection ne civile mu nekk seen participation ndax daayira Sëñ Tuubaa yi nga xam ni mën nañu wax ni. bu ñuy wax en terme de masse ak doole maanaam puissance financière ñoo ko fi ëpp ndax ñoom ngay gis li ñuy génne fii ak li ñuy dajale ci xaalis kenn mësu ko mën a dajale fii ci dëkk bi ma joxewaat benn exemple tey jii boo xoolee démb ndeysaan maa ngi koy ziar bu baax sama sama jëwriñ Serigne Saliou Seck waroon naa organiser ndeysaan benn cant Serigne Saliou fële ca Brescia waaye ñëpp xam nañ ni condition yi ñu gis ne. li fi naroon am ci màggal fii gën ngaa tuuti euh, war naa nekk ci quinze ba lu ko ëpp màggal yooyu gën ngaa néew néew néew waroon na euh, générer deux cent mille deux cent mille euros wala deux cent cinquante mille euros est-ce que jaaduwul koppar yooyu ñu dajale si sax un tiers bi wala un quart bi jëlaat ko delloowaat ko ci suñu communauté bii nga xam ni fii lañu nekk ndax bu ñu sonnee ñoom ñu njëkk a dimbali tey jii sénégalais bu soxlaa dëgg-dëgg léeg-léeg ci Caritas Caritas ay njëkk a ñëw balaa communauté di ñëw est-ce que jaaduwul ñu jógaat taxaw créer benn réseau de solidarité boo xam ni donte mënut a nekk sax national mais ñu créer ko euh, organiser ko ba nga xam ni dëkk bu nekk taxawaay ba dañ koy organiser mu am ko fa nekk ñu ne la demal ci autorités yi boo leen ko dajalee ngeen jox ko mu nekk euh, lu communauté bi war a def est-ce que jaaduwul sëñ Ablaye ndeysaan wax nga lu rafet wax nga lu lu jaadu lu yàlla ndax fii la ñuy dund kenn ku nekk xam nga ni li ngay versé maara di bu feebar ñëwee daan la fajalu ko ëpp ndax fajum Europe moo demee noonu ñaata ci suñuy compatriotes ñoo xam ne sax dañuy jugee réew ma ñëw fii liggéeyuñ fi dëkkuñu fi lu dul ñëw voyage tey jii boo ci mënee tudd yenn kilifa diine yu fi ñëw di dem hôpital ngir ñu seet seeni yaram ñu faj leen gratuitement mm-hmm. loola est-ce que ci li ñu verse la génn li ñuy wax droit à l'éducation say gone di dem école fay ba ba ba primaire bépp maanaam daanaka matériel didactique yooyu yëpp daanaka c'est gratuite mm-hmm. euh, li nga wax nii maanaam gis nga buñ defoon geste boobu mi li ma la wax ni la euh, problème fu mu am damay jàpp ne Touba la war a defaale sëñ Moussa sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg gis nga geste bi mu def nii génne deux cent millions man dama damaa jàpp ni ndëgg ni dana fekk ñu dajale un milliard ci Sénégal. ak man man de yaakaaroon naa ko. c'est-à-dire ba mu ko defee ba noppi loolu lan demee jàppoon naa ni maanaam ba ci sëriñ si nga xam dañoo topp ci moom di ay ñenn ñi di di di maanaam muy seen kilifa kenn ku ne même bu doon un geste symbolique de vingt cinq mille de cinquante mille francs cest dire pour. tontu waxi sëñ Muntaxa Dia da leen a joxo joxoñu yoon de daan te gisuñu baaram bi waaye moom lam lam nekkoon lam ni ku dem ma dem ku demut ma dem ca la ne gaa ñi nag dañoo toog ñëpp a toog tey jii je m'attendais un certain ministre un certain de de de de société certain directeur de média wala façon yooyu kenn ku ne jóg def dara donte yow bir na leen ni xaalis bi nga yor sax moomoo ko lenn lu ne dénk na leen ay soirée ay dix millions la ñuy joxe ah, soirée yi ngay tudd ban ngay faral di tudd am na benn waay boo xam ne mooy def uh, communiqué dama ne li kii fii tëjuñu gémmiñam gi Sénégal du dem ndax kenn kon dana ñaata ministre la fay lim sur le sur le haut patronage sur le haut patronage de diw de diw di leen lim di leen lim te ku yoru poste de responsable du la tudd pour wàcc dootu la tudd mm-hmm. te ñooñu minimum danañ ci def lu gàtt gàtt deux cent mille wala wala wala cinq cent mille francs te xaalis ba bir na leen moomuñu ko mm-hmm. kon tey jii ñun buñ jógee fii ginnaaw major parti màggal yi faroon am cant yi fi am biir nañun moom ren mën naa sooxe mbaa du am waaye buñ xaar sax lañ daan def ca yooyu màggal c'est-à-dire li ma doon woote mooy daayira bu ne bu nekk ci biir Italie rek bu ne seetal un geste symbolique man waxuma koppar yi waxuma montant bi mais geste bi mooy li nga xam ni mooy salutaire loo mën a génn ci sa kees loo mën a génn ci la nga daan daje sa social lo mana wo say mbokki talibé kenn ku ne def joxe dara donte 10 euro 10 euro 5 euro 5 euro 20 euro 20 wala lay man ñu dajalé ko comme ñu nga dëkk ñu dem ci provision bu ko défé ñun ñëpp bu ko défando mhm. wallahi danañ am benen bët bu ñu xolé bu li hmm waaw ndax li naan jote balaa hmm te ku ku ku li naan ku ëmb sa xawma lan ëmb sa sankal ku ëmbal sa sa sankal ëmb sa kessa Mhm. day daal di am bu boobaa danañ ni kat ñun kat ñun jàppoon nañ ñii ay dogalan waaye ñun dëkk ay nit lañ ko sëqal mhm. te gis nga eh, Italie ni ko Union européenne seetaane ndax vidéo conférence bañ defoon ñoom mu leen di laaj ay masque gi ay ay machine respirateur mais dañoo bañ ni ko dañ koy téye suñ dañ koy téye suñu réew mhm. ñoom yëpp dañoo lànk ba ba gis nga Trump li mu ci wax ni ni Italie na bàyyi Union européenne hmm. ah Chine moo dikk Chine ba nga xam ne ndeysaan moom lañ doon sabatu au début moo dikk di ñu dimbale. mais mm-hmm. bi kon li nga xam ni lu am solo la loo xam ni jiiti daayira yëpp maa ngi leen ci woo nañ ci xalaat ñun ñëpp wala communauté Sénégal bi fi nekk ñëpp association yi fi nekk yëpp nañ ci bàyyi xel ñu def un geste symbolique buñ xeeb dara ndax ñu xeebuñu dara seen mm-hmm. donation yi un euro sax xeebuñu ko ndax un euro sama un euro sa un euro suba bu subaa mu man mu man dara mu mën a jënd dara ndax kenn xamut te kat sëñ bi dangay ngay fagaru moo gën faju mm-hmm. te xëy na ñeen ñuy faj euh, xëy na même buñ bokkut ak ñoom ay diine ay doomi aadama lañ te suñ borom moo ne wala xadd karam naa bani aadama mm-hmm. sëñ Tuubaa jaar na fekk tubaab yi Cheikh Modou Moussa jaar na fekk tubaab yi Cheikh Modou Fadel jaar na sëñ sëñ Abdoul Ahad jaar na fekk mm-hmm. sëñ sëñ sëñ Abdou Khadir noonu sëñ Saliou gis nga ko ba ca mbënn ma nga waxoon ni moo xewoon ca moo sax yónnee na fa dara Mhm. kon loolu sëñ bi nañ ci bàyyi xel ba bu bë bu barki dem nga gis sëñ sëñ sëñ Muntaxa li mu def lu am solo la geste bu am solo la doo xam ne man buñ ko defoon man li ma wax du montant bi ñu dajale mais le geste est reconnaissant et symbolique loolu daal la mën ma ci wax. tey jii sëñ Ablaye da ngay xool euh, sëriñ bu ci nekk yor nga plus de yaay yaa ngi yaa ngi euh, bàkku ni maa ëppi taalibe. Mhm. tey jii bu ñuy wax Touba bokk na ci dëkk yi gën a insalubre ci wàllu boo génnee périmètre jumaa ji hmm. ba nee nañu daanaka maa ngi gis sànq benn waxtaankat ndeysaan ku saf xorom di wax ni feebar bu ñëw day dem ziyaare ji Touba tey jii loolu loolu tey jii c'était le moment pour hmm. affronter problème boobu mu jeex dakk nga ni tey jii man ak samay taalibe danañu jóg maanaam quartier bii dinañ ko setal désinfecté ko jox leen lépp lu war génne nangam teg parce que Touba soxlawul ku ko dimbali Touba moo mun a joxe l'exemple du Sénégal tey jii Touba bu defoon noonu beneen dëkk def ko beneen dëkk Sénégal du ñu am craintu maanaam ku fi ñëw lan la ñu indil waaye danañu faagaru ba nga xam ni état bi danañ ko mettre le dos au mur pour mu waajal dafa mel ni am na mbokk mu nekk ci biir de. waaw dafa mel ni sëñ Xaadim moo newoon ci biir de sëñ Xaadim Ñas Hmm. Euh, euh, man man foofu laa foofu laa gisee tey jii ni ni taxawaay boobu la ñu war a taxaw ñun murit yi nekk fii tey jii nga gis ku ci nekk sëñ bi euh, dix euro yooyu ngay wax rafetlu naa ko waaye tey jaadu woon na ku ci nekk génne cent euro teg cent euro ñiy liggéey ñu xool sunu dëkk yi ñaata jaaykat ñoo fa nekk ñu teg jël benn fondo solidarité boo xam ne dañ koy tuddee espèces solidaires jël leneen li nga xam ni moom la ñu war a dimbalee waa réew mi dem jox ko protection civile ak ki ka nekk ci kilifa dëkk mais bu ñu gisee dañu ne ñii kat ay nit lañ communauté marocaine bi wax dëgg fa yàlla maa ngi gis ci ñoom lu bari loo xam ni war nañ ko mun a jàngat ñun de rawoon nañ leen ci wàllu organisation waaye gis naa ni at yi mujj communauté marocaine bi ni mu organisé ci wàllu diine ni muy taxawee ci wàllu structure ak wàllu administration yéem na ma yéem boo xam ni man damay wax ni ñun de bu ñu amul woon xasida yi ñuy jàng ah dëgg dëgg dana yéeme sëñ Ablaye ndax nag soo xoolee dëkk bi ñoom rek du ñoom rek de albani yi sax raw nañ ñu dëkk bi wax dëgg fa yàlla taxawaay biñ ci war a taxaw dafa des du ay caaxaan ndax nag suñu kilifa euh, yàlla na yàlla yokki leeram Serigne Mourtala bi mu fiy ñëw dafa ñëw indaale fi ay xaalis kopparam bàyyi ko fi am lu mhm. ñu fi sant mais liggéey boobu ba léegi dafa des liggéey boobu ba léegi dafa des ndax ñun yaakaar nañu ne tey jii lu ñuy def suñu biir lañ ko war a def maanaam màggal yi ñooy jënd suñu suñu suñu ay xéewal tëju ci suñu saal làkk suñu wolof tari jang suñuy xasida jang alquran euh, euh, euh, wax liñu waxtan waxtan waxtaan suñuy waxtaan bu fajar jotee ku nekk dem si am mu mel ni njeexital gi nga xam ni war nañ ko delloowaat ci réew mi ba léegi dafa des ci loolu sëñ sëñ pap Mokhtar. waaw xam nga sëñ pap yàgg nañ wax ci rajo bi fii ni ñun liggéey bi nga xamante ni sëñ bu mag bi liggéey na ko ñun ñu toll ci wesaare ko ñun foofu lañ toll ndax la sëñ bi def ñun toll ñun lu toll ni tarfatal ay ni def lu ni mel. waaye ñun dañoo tollu ci wesaare ko wesaare ko nag waxuñu ci ba léegi ñaata yoon la ñu wax fii ne euh, ñi nekk dans le nord war nañoo jël stade bi gën a mucc ayib ci nord bi fii ah defee fa màggal invité préfet yi fi nekk yépp xamal nit ñi kan mooy sëñ bi waaye bu dee Parma dafa màggal euh, Brescia màggal Piacenza màggal Cremona màggal Reggio Emilia màggal bu ñu xëyee ñëpp fàtte nañ ko ñëpp faté nañu lan mo xewon démb lek na ba suur magal gi neexna jang nañ xasside yam nañ fa waye amna naa ni buñu dajalo won nonu jëmmal jëmmal ko xétu jëmmal gogo. préfecture fu muy déplacer wo stamp bi dana ko top bu parma bu fenen ak fenen bu milan et cetera et cetera mu doon mbir mo xamanteni ba muy am mais lolu lolu lolu moom ñun mom moy suñ devoir lolu wane ben li ñuy def nëbbuñu ko wane ni li ñuy def jàmm ak salaam rek te li ñuy def luy sàmm réew mi la wane ni li ñuy def jam ñu koy defal ci jàmm rek lay dox wu ndaw musu koo yëkkati bantu bale ndaw musu koo yëkkati dafa mel ni sëñ paap gan gi dikk de dellu si ne de sëñ xaadim ñu ngi lay siyaar salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ xaadim ñes ah, mu ñu ngi siyaar bu baax ngeen baal ma ne damaa dog waxtaan wi dama lay jot li benn communiqué bu fi am rek fii ci Santa Cruz. bisimilah. dëgg la kii yooyu ñuy fexe daal borom oto yi yu ko yorul damaa gis benn waaye bu jëmoon sànni ñaata ba nangu nañu fermé moom. dégguma li nga wax. këyit yooyu ñuy joxe. ah auto certification yi. waaw ah, waa ji da ko yorul karaw ñuy arrêté ko daal di nangu permis moom ci saa hmm, la ma doon wax ak ngoog. waaw ñi nga xam ne jotewuñ ci nañ ko dégg sànni ñaata gi daal xañ na da nga ci jot sax yow. waaw waaw xam nga dañu ne booy booy génn. Hmm. ci ñetti ñetti condition yu mënta ñàkk. waaw liggéeyi dem defi spese wala dem faju ji. obligatoirement da war a yore artu certification ne. moom daal permis ba jël nañ ko ah. mooy sévère bi ma doon wax rek xam nga ca njëlbeen ba. tubaab yi gëmoon nañu seen bopp xam ni nit ñi euh, guñu ko tàmm guñu ko te yëf yi jaaxalagu leen ni mu leen jaaxalee waaye lu muy gën di dem ci kanam muy gën di sévère. ñi de bàyyiwul moom tey moom dañoo yënd wari moom tey moom dañoo rakkaaju son bi moom. Mm-hmm. moom bu son fépp la. waaw mais nag mais nag mais nag sëñ sëñ Xaadim. waaw. yow xam nga li tax ñu rakkaaju ndax boo xoolee zone bi ñun rek ñoo fi jiiroo. Ah, maa ah. ngi xool ci Facebook bi lu ma yéem. Sénégalais yi rek ngay gis ñu nekk ci mbedd mi di def ay video di wax xool leen Italie kenn nekk fii. waaw loolu loolu lu muy jëriñ sëñ bi. naka dox ci mbedd mi kay. sëñ bi naka ngay dox ci mbedd mi di def ay vidéo di wax lii yéeme na xool leen Italie ah ñëpp ci biir mais doo dugg si biir kër. ah man kay dem naa ko COP bi ba ñëw daje maa ma ne ah li wóorul. man nag sénégalais rek laay gis <laughs> ñu def ay vidéo waaw baax na ma kon maa ngi. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape Mokhtar yeggali. waaw maanaam li ma doon wax mooy tolluwaay ñun bi nga xamante ni foofu lañ toll ci fésal liggéeyu Serigne Touba. ak yaatal ko. ndax fu ñu màggalee ba noppi. bu ñëpp ñibbee seen kër yi. ñenn ñi sax à la limite dañuy yóbbaale sax lu nu lu nu ci xéwal yi yóbbaale ko ci kër yi. foofa la màggal gi yam. te man jàpp naa ni te gëm naa ni. màggaluk sëriñ Touba. gazette yi fii war nañoo xëy di ci wax ba ngoon ndax dañ fay gis ak njàng jàng fa ab njàngat boo xamante ni duñ ko gis fenn ci àdduna bañ juddoo ba léegi ñoom tubaab bi duñu gis lu ni mel laboratoire yooyu sëñ Pape ngay defal xale yi ci biir euh, euh, euh, guddi xasida yi laboratoire yooyu tubaab bi ñëw xale yi di leen faram fàcceel kan mooy sëñ bi jaar jaaram naka la xeex ak tubaab yi te yëkkatiwul bant bale naka la le euh, yoonu yoon wi ba rëdd ko ba tracé ko ba nekk ci jàmm ba am dëkkam bu ñuy woowee Touba ak Touba fan la féete lan lan moo fa nekk lan ak lan ak lan yooyu tubaab bi dañ ko war a xam tubaab bi dañ ko war a xam ndax boo fésalul loolu yow naka nga ñaanee yàlla suñu borom yaatal yoon wi ba euh, ab tubaab sax war a jokk donte ñu ngi jokk nag dëgg-dëgg donte ñu ngi jokk waaye jokk bi war naa gën a mën a yaatu ci kaw ñun ñu yaatal ubbi dafa mel ni ñun dañoo xaw a jaloux daal ci yoon wi dafa mel ni ñun dañu dañuy tëj yoon wi rek bëgguñu keneen dugg dañoo xaw a jaloux trop lu ñuy def dañ koy nëbb lu ñuy kii dañ koy nëbb moo tax solidarité bi ñuy woote danoo war a wane ni ñun ci dëkk bi lañu bokk ndax hôpitaux yi ñuy ñuy ñuy construire nii ci sunu xaalis ci la bokk mooy taxes yi ñuy fay contribution bi ñuy jox jëttiito sociale bi ñuy dugal kon ñun lii bu amee ñun waruñu toog di xaar Sénégal di nekk ci situation waruñu ñaan sax Sénégal àgg ci situation bii nii ñaanuñu ko parce que bu fa eggee mara détail yi kon ñun fii ñu nekk actuellement war nañoo mën a wane sunu bopp une fois pour pour de bon ñu tubaab yi gën ñoo jox suñu cër gën a xam ni ñun ñii intégration bi nga xamante ni ñoom ñu ñu ciy woo ñu wan leen lan mooy intégration ndax ñun solidarité di solidarité Euh, ak jàppalante sëñ Modou Moustapha rëddal nu yoon wi yàgg na boobu tubaab yi xamuñu lan mooy solidarité sëñ Ablaye. waaw xam naa man de man de sëñ Ablaye. Euh, bañ hmm. bëgguma leen a dog waaye euh, dama relancer benn mbir mu ma ñor lool te dama gis vraiment dégg gu ma ma bëgg daal vraiment lu weesu suba ñu commencé ci waxtaan xanaa tey ci guddi sax. ndax gëm naa ni dëkk bu nekk yor na daayira boo xam ni moo xam tijaan la moo xam mm-hmm. association communauté sénégalaise wala chrétienne euh, mm-hmm. donte am na ñu ko commencé def ndax dégg naa waa Brescia am na lu ñu commencé dajale euh, mm-hmm. par euh, dégg naa kii di ko wax par Moxtaar waaye dafa jaadu ñu créer benn comi comité boo xam ni dëkk bu nekk war nañ xam ni kii moo fay référence tey jii nga xam ni bu maam maana ñuy dem danañ ko war a mën a biral xam ni sénégalais yi nekk Italie lii la def waaye nag dëgg-dëgg euh, mën nañoo dajale lool euh, mën nañoo joxe lool waaye manqué nañu organisation tey jii waroon na jaadu dëkk bu nekk ñu xam kan moo fay jëwriñ euh, jëwriñ nag buñ koy wax du jëwriñ ci daayira rek jëwriñ mooy ka nga xam ne mooy njiit ga mën naa nekk ca daayira ba waaye mën naa nekk ci ci wàllu ci wàllu administration bu jiitee ànd ak ña bokk ak daayira yi daayira tijaan yi laayeen yi képp ku mu mën doon ak association chrétienne yi ñu créé benn réseau de solidarité boo xam ni communauté sénégalaise moo koy def nga xam ni bu ñu paree warees na ko sax mën a teg ci kayit bind ko jox ko sunu ay autorité ñu xam ni ñun kat lii def nañ ko ci ci participer nañ ko ci xew-xew bi nekk itali su boobaa bu ëllëgee dinañ war a mën a taxaw affaccaare wu ak waa dëkk bi xamal leen ni leen ñun dëkk bi bu jóg taxaw bu jóg jotee dañuy jóg taxaw lu mësti xew dañuy jóg taxaw waaye nag foofu na ma ko waxee woon rek man dama gëm ni daayira yi bokk nañ ci ñu war njëkk a jóg tey jii ndax xëy na am na association yoo xam ni ni ñuy drainer ci mo ci ci ci ci ci ci ci nit taxu ko demee noonu wala xëy na nañ leen di euh, euh, dégloo ci ci mbooloo mi euh, du demee noonu waaye tey jii xëy na jëw nañu daayira yi am na nu ñuy waxee rek ak am na nuñ koy waxee moo xam dañ koy teg ci ay ay ay ay ay soññ yoo xam ni bu ñu paree rek sénégalais yëpp danañ leen mën a dégg man damaa dama dama dama damaa gëm ni tey jii suba waruñu waruñu waruñu dépasser suba te communauté yi jógu jóguñu taxaw topando le nga xam ni sunu soxna yi tàmbali nañ ko sëñ Ablaye. xam nga jërëjëf jërëjëf sëñ pat loolu lépp xam nga day dugg ci ñaari raay rek ray ak romb ray lu baax lu safaanoo nga romb ko rek euh, loolu nga wax geste boobu nga xam ñooñu dajale nañ seen six cent mille six cent euros six cent euros yi fi mu toll sëñ bi maanaam gis-gis ba ay milliards la ndax geste bi moo am solo. Mm-hmm. ndax xam nañ ni xam nañ ni ñun daanaka yoruñu xaalis bu ñuy denc bu dee personnellement. individuellement mais communauté bi am nañ ay xaalis mhm. ñenn ñi ñu ngi ci xëy na seen bilan taxul mu demee noonu mais sacrifice da cee war ngir c'est-à-dire defar sunu sunub der mhm. defar maanaam defar sunub der ñoo ñoo redorer le blason da ciy mhm. baax ndax dafa bari lu bari loo xam ne aussi dañ ko perte de crédibilité boo xam ne jàpp nañ ñun ñoom intégration ñu bëgg mënuñu ko d'accord ñu ko parce que mën ñoo jaxasoog ñoom ci bokkuñu diine bokkuñu ay lu ñuy def bu dee da ngaa jàpp ne man sama intégration mooy ànd ak yow dem ca baar ba wala ànd ak yow yoru magab cigarette du ma intégré hmm. mukk ñoom hmm. assimilation lañ bëgg te mënta nekk c'est-à-dire mën na ñëw nag jonjoo ci liñ bokk muy société bi mais buñ demee ba kenn ku nekk sa ngëm-ngëm nag kenn ku nekk sa ngëm-ngëm si biir dënn lañ nekk da ngay wéet ak moom hmm. lii sëñ Pape Makhtar doon wax ni gis nga ko wax naa ko ba tey dajaloo am suñu xaalis bëree bëri togg suñuy ganaar suñuy salaat lekk ko naan suñu kafe jàng suñu xasida daal dem ñibbi loolu ci ñun la yam c'est-à-dire ñun ñii lay renforcer mais lan lan lan ban ban apport la am ci société bi nga xam ne ñoom ñoo ñu hospité la c'est-à-dire lan la leen di jàngal ñoom li waa di wax ni dafa am kum jëlee xaw ma Dakar la ko jëlee yóbbu ko ni ko dañ ne màggali mu ko ah, man de màggal ma ko dégg mosuma mosuma caa dem ñu ànd mu dem dalal ko ci këram sëñ bi ah ndekki li ñëw naa mu ko ah ndekki gi di ñëwagul ñu dem andi ndekki mu ndekki ba suur ñu dem ba waxtu añ mu ne waa añ bi ñu war a mën añ mu dem yarub añ indi moom reer bi ñu war a ko waaw reer bi de moom bisimilah mu reer ba bëgg mu xëy la laa demee ni ko nan dellu Dakar mu ne ko mm-hmm. donc cest à ci loolu la ñuy dox noonu wax naa leen fi ba taay ni leen li ñuy dajale ci xaalis di ko def noonu yàlla xam ne seet mbokkum taale moo xamante ni bir na leen ni gor la jullit la taalibe la te jo loxoom jot jot jot digg ginnaawam ba yëkkati lu am solo jox ko kookee bu jàngee faatee képp ñaan ñun ñëpp ñu jariñ mais duñ ko def mais symbole bi sëñ Pape di wax nag lu jar a def la euh, maa ngi ci doon déggoo ak sëñ Amin mooy yow ci bëccëg ci ci demee noonu euh, gën naa la sëñ waaye jotuma la ci bëccëg bi waaye euh, jamono yee ci ginnaaw amoon na participation bu nga xam ne doon nañ ko def ñun association maam kuréelu kuréelu xasire yi ci ndigalu Serigne Sam Diop kenn joxe woon na benn chiffre boo xamante nii bu symbolique la ku ko man bisimilah ñu joxe benn IBAN ñu versé ci xaalis boo xam en l'espace de cinq ou six jours dajale lañ fa at yoo xamante ni dem na ba yegg ci suñ ama suñ suñ am sa suñ saa mu jébbal ko si muntaxaa muy lu lu am c'est-à-dire man du du lu ma leen wax du quantité bi mm-hmm. mais c'est qualité symbole mm-hmm. Mm-hmm. kon moyen yooyu ñàkk fi ñun ñëpp ñi ngi en quarantaine amut kenn ku mën a génn mais Postepay yi wala IBAN yi wala yu ni mel buñ ko génnee wala cest mu am ku ko rakkal yore c'est-à-dire bu génnee di jëli yooyu fonds biir na ko ni moom kenn du ko arrêté naan ko nga parce que bu joxe yooyu cest dafa parce que dafa y a les explications ah, lii maa ko yóbbu cest à ko donc en l'espace de quelques jours bala lii gën kii parce que day jeexee moom incha allah moom suñu borom ko teg eh, buñ ko teg bu ko yàlla teggee nag nañ fexe ñun tam ñu am ci awoy buñ fi jógee suñu mbir dañ xam ci lan yan lañ koy amna loi yo xamni wala yene rigueur de loi yoo xam ne doon ñu ko teg parce que xamna ñu kenn ñi nekk société bi lañ dëkk loolu laa amna la xamna da ngeen am gan ngeen dalal ko balaa wax ci gëna a waaw señ Modou salaamaaleykum wa rahmatullah alaykum salaam ñi ngi lay ziar di la massaw choono señ Modou sen sen sen dekk bu dee suma suma la gisee journaux yi rek sama xel day nekk ci yeen ndeysaan ndeysaan ma ne ko Bergamo ndeysaan boole ci nag sama mbokk yépp fa lañ nekk ndax sama doom ndey ñoom saan bari naa fa ay mbokk yu fa nekk tey fa yii moom daanaka mën naa ni euh, ni waa Sénégal di def rek fu waay nekk daal sa moroom ñi ngi am jaaxle ndax xew xew bi moom kenn xamul fu mu nekk ndax lu kenn xamul fu mu ne moom. dana waar dana waar ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Modou. moom delloo ziar di bu baax di marsaw ñëpp di wax ñaan yàlla yàlla dañu ñaani di ziar waa rajo bi yëpp eh, suñu Pape Matar ak suñu Ablaye Diop suñu jooju suñu jaamu ñëpp rek auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo bi wax naan yàlla nangu ña nga xam ne ñëpp ñu ngi koy ñaan xam naa waxtaan bi li tax mu dugg ci da ngeen ci waxtaan bi pare bu am solo eh, ci taxawaay bi nga xam ne ñun Sénégalais yi. profito euh, wala ci acte de solidarité boo xamante ni ni suñu jëwriñ wane muy sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg yàlla fi yàgg hmm. muy wax ba pare joxe ci ndigal hmm. naam ñu ñu ngi koy def mais niñ koy defee dama jàppul na dina am impact dëgg dëgg dëgg ni mu ko waroon a amee ndax yàlla dafa dogal dafa fekkul organisation bu dëgër am fi ba tax loolu mën a am mën a feeñ ndax tey bu fekkoon tey booloo gi ànd gi ñu war a booloo amoon na tey lii bu amee bu ñu yëkkatindoo rek dinañ mën a wane suñu doole mais malheureusement amut hmm. ndax kenn ku nekk da ngay nekk sa rek yaa ngi dajale Brèche yaa ngi dajale Bergamo ngi dajale Novara ngi dajale Toscana ngi dajale kenn ku nekk ay dajale mais ni mu war a amee impact dëgg dëgg dëgg nga xam ne ni ñu koy defee bu ñu jébbale ci daayira yi ngay dégg ñu naa la nañ cent millions yóbbu nañ nangam lii tey bu doon ànd nañ ànd boobu ñu war a def te dafa mel ni am na kuréel bu fi am ndax euh, sëñ Pape yaakaar naa daje nañ ci yooni yoon muy confédération bi ne mi ngi am Italie tey jii lii seen taxawaay la woon ñoom ñu waran cee dox solidarité boobu organiser daayira yi ak ñëpp sénégalais yi sax nga xam ne ñu ngi fi dudd muy association ñëpp ñëpp yëkkatandoo ñu mën a am loo xamante ni tey dañuy dem mën a taxaw jàkkaarloog protection civile mën leen ko jébbal ci ni ko ñëpp di defee mais tey boo gisee ñi muy doxee nii vraiment di nga gis ne am nañu yéene xañ ne ñu wax rek mais gëwuma ne dina am dëgg dëgg dëgg euh, bàyyi xel gi ko autorités yi war a mën a bàyyi xel daal te itam lu ñu waroon la dëkk boo fi nekkee loo fi am fi ko amee di fiy dugg di fi njaboot di fi nekk fi lañu dëkk mm-hmm. dëkk bi buñ ci boolewut suñu bopp yi tamit wax dëgg yàlla ci yàlla dañ cee boole ba pare kon. Mhm. nit ki nag mooy nangu dogal bu yàlla. am réew boo fi nekkee booy wax dëgg yàlla ba fay ami sët. ba fay def lu nekk wax ngaa xam ne moom <laughs> boo ci boolewut bopp yi tamit yàlla boole na ci ci nga bokk. Mhm. kon Sénégalais yi suñu problème mooy dañoo boolewut suñu bopp ci dëkk bi dafa mel ni ay doxandéem lañ fi bëgg a téye suñu bopp ba léegi te duñ fi ay doxandéem dañ cee bokk. sëñ juuf loolu xale yi sax nangootuñu ko. voilà dañ cee bokk mais ñun nag mentalement dañoo bëgg a nekk ci dëkk bi comme ay doxandéem da ngay dégg léeg-léeg sénégalais yi wax sax dañ naan Italie Italie wala tubaab bi tubaab bi mais bi la te mbir mi ñëpp la impact ñëpp mm-hmm. ñëpp ñun ñëpp moo ñoo exposé wu ndax kuy kuy kuy dox temps yi ñun yàlla dogal na secteur bi ñu nekk muy transport arrêté wuñu mais booy dem di wër ci àdduna bi di génn da ngay gis ne vraiment eh, du du caaxaan daal lu metti la comme ni suñ Pape doon wax sànq gouvernement bi mesures yi ñu waroon jël avant ñu koy jël mun mun yombul daal parce que. Mhm. arrêté yenn yi mënut yombul. parce mhm. que te Italie nag vraiment ni mu résisté nii am na réew yu bari tey boo demee Europe de l'Est yi par exemple Angleterre depuis mercredi semaine prochaine boo duggee ci marché boo jënd euh, pasta bu rombee ñaar wala ñett ñaar la non benn ngay jël parce que produire wu ñu fa dara boo demee Europe de l'Est boo jëlee Brennero bi. frigo yi lépp Italie lay jóge ci wàll yooyu ñoom ñoo ñu gën a metti le Italie dara manqué gul ci supermarché yi parce que mm-hmm. Italie day produire lépp donc mm-hmm. Italie ñu mu résister nii yaakaar na yéen benn réew Europe bu ko mën a résister ci wàllu boo amul parce que mm-hmm. yàlla doog ah, industrie yi fa la nekk muy wàllu alimentation boo demee Verona ba ba ngay génne Bolzano daanaka boo xoolee frigo yi ñu ngi taxaw te bu ñu taxawee benn fan Italie li commencé Austria wala Allemagne foofu yëpp du ñu lekk fruit duñu duñu du ñu naan meew tey loolu commencé naa feeñ kon Italie wax dëgg yàlla euh, taxawaayam bi mu am ni euh, lu rëy la daal donc ñu ñaan yàlla rek mu mu yam fi te gaaw gaaw gaaw saafara waaye daal Sénégal yi daal vraiment war nañoo gën a booloo xamne li war nañ ci mëna wone suñu bopp ndax euh, ci réew mi ci lañu bokk na ñu jégalu ne baax a baax dama lay laaj dama lay dama ci dama ci lu laajaat la benen laaj hmm. ndax ndax fi mom dafa am luñu bokk waye Touba dafa am loo leen loo leen jiite tey jii hmm. taxawaay boobu xalif bi def te yeen ñu hmm. gis leen ngeen nekk ay acteur Touba manam xew-xew bi am euh, li tax mo wax ko moy da nga bokk <coughs> da ngeen nekk ci jëwriñu Touba ci kanam yi tey jii Touba ca kanam est-ce que jóg na taxaw parce que it situation bi situation de crise la boo xam ni ñëpp a war a créer comité de crise euh, wàllu santé Touba ca kanam tey jii mun naa ni euh, euh, li muy dox sax état bi doxagu ko yéen est-ce que am na ay matuwaay yoo leen ci yoo leen ci commencé xalaat fi mu ne nii. waaw loolu nag xañ na bëgguma anticiper ci ay réunion yu ñu commencé def ndax maa ngi déglu bureau bi tey mbokk yi ñu ngi def ndax. comme bi suñ mëntaxaa joxee ndigal moom association yëpp wala daayira yeeg képp koo xamee yaa ngi yaa ngi jëngu lenn ci euh, lu jëm lu demee noonu yaa am looy xalaat action yoo war a def Touba ca kanam euh, comme noonu nga ko waxee mbooloo lañ moo xamante ni dañoo jóg ngir euh, lépp loo xamante ni lu war ci dëkku Serigne Touba bi surtout lu nga xam ne xew na fa nii dañu ne fa la commencé Eh, bu ñëwee ñu taxaw ci def ci taxawaay tey jii rek mbokk yi ñu ngi ci réunion mais réunion bi vraiment pare bi ñu génnee bi ñu benn décision boo xamante ni war nañ ko cee def wala lu ñu war a débloqué wala lu ñu war jàppale ci li nga xam ne moo am ndax ñoom vraiment quotidiennement ci loolu la ñuy dox muy mhm. lépp lu ñu gis ne lii lu xew la ci dëkk bi surtout Touba moo xam fu mu xewee ñu jóg taxaw bu dee alal la bu ñu war a génne ñu génne la bu dee lu ñu war a saafara ñu saafara comme ni ñu koy defee ci ndax tey forage bu ñu dégg sax mu ne panne la ñu njëkk a def mooy wut xool ban sa problème nga am ñu dem jëndil la euh, yi nga xam ne dañuy soxla euh, wàllu sanitaire wàllu lu mën di doon rek ci loo xamante ni dëkk bi soxla na ko Touba ca kanam moom jumtukaay la boo xamante ni jumtukaayu Serigne Touba la ci wàllu euh, financement ci ressources yoo xamante ni muy lépp lu nit bëgg a def. te yoroo moyen ñoom ñu bu leen leeree ñu bon gëstu ko comme na war nañ koo def ñu jóg taxaw def ko. donc yaakaar naa ci fan yi xam ne jombut kilifa yi bu ñu daje jombul décision dina ci génn ci loolu pour luñ ci war a luñ ci war a def loolu daal di manque delluwaat laaj la beneen question ndax fi mu ne nii <laughs> euh, euh, damay rajo bi dafa nekk rajo boo xam ni dafay leeral yéen ñi bokk ci garage bi Touba yooyu yaay président bi mm. euh, mooy chauffeur yi nga xam ni yéen a nekk Europe adhéré ci yéen mooy ñi nga xam ni dañuy dawal yoonu Sénégal bi non ñooñu moom euh, xanaa ay euh, mbokk yoo xamante ni di ñibbi parce que am na am naa ci ku départ euh, am naa ci benn collègue bu départ jeudi ba fi mu toll nii sax amagu loolu nag loolu nag loolu nag laa la doon laaj ndax damaa bëgg ñu taxaw ndax tey jii rek Sénégal amaat nañu yeneen ñaari cas yoo xam ni ci yoonu suuf la ñu jaar est-ce que yéen ñi nekk ci gaaraasu Touba aussi amul leen liggéey boo leen wara liggéey pour wax. immigré yi nekk fii ñu toog ngir yàlla ndax waxtu bi dootul waxtu mobilité mu dëkk yi ñëpp te frontière loolu loolu moom ñun dèjà ñu ngi ci doon liggéey parce que bu dee boo yemee ci panel bi nga xam ne chauffeur yi nga xam nga chauffeur yi information yu bëri bëri ci ñoom lay jiitu ndax boo xëyee fi toll nii ci panelu gaaru Thiel Touba Italie dañuy def euh, temps réel la ñuy def lépp loo xam même détails yi même chauffeur itam boo xoolee li ma dégg mbokk moom di wax sànq ci euh, carabinieri yi nga xam ne euh, dérobe yi nga xam ne génn nañ ko ci wàllu circulation yi nga xam ne ñu war a ak yooyu yëpp mm-hmm. dañ ci informer chauffeur yi ak ñu muy yi lay liggéeyloo parce que di daan parce que problème bi ñu am temps yi chauffeur yi ñu ngi transport ñu ngi ñu ngi ñu ngi circuler mais dañuy ñëw ci dita léegi boo demee sanitaire yi dañ koy tëj boo ñëwee ñu ne la euh, baañu cuuso léegi chauffeur yi ñu ngi leen di liggéeyloo te amuñu benn benn seen besognose yi ñu war a def amuñu fenn fuñ ko defee parce que bàyyi tëj na restaurant yi tëj na arrêt service yi tëj na donc chauffeur yi même li ñuy def ni mënut te continuer quoi parce que euh, bu ñu bëggee ne da du duñu taxaw ba pare li ñu soxla ñu ko def dañuy am problème donc yooyu yëpp mbokk yi am na ci chauffeur yoo xamante ni même di saa yi leen di liggéeyloo dañ leen di teg ci condition yoo xamante ni du du yu jaar yoon dañ leen di informer ah, da ngeen di taxaw parce que am na loo xam ne itam da sa bopp parce que baaño yi sax te baaño arrêt service yi tam itam benn gënu ko ëpp péricolosité parce que foofu ñëpp fay daje même bu dara mm-hmm. xewul sax dugg fa safar mm-hmm. jullit wala sénégalais yi léeg-léeg dañ leen informé dara xewul sax dugg fa sax daal ñu bëri nanguñu ko parce que du ah, am hygiène bi mu laaj ba tax nga fay war a dem donc yu bëree bëri dañ leen ci informé ci yooyu yoonu suuf bi tam euh, semaine bi passé rek am na benn camion bu waroon départ boo xamante ni dëkk Rimini lu mel ni cas yi lépp liñ dégg ko xam na koy arrêté pour dem parce que wóorul parce que euh, actuellement ni Maroc boo ko jaaree jóge Italie dañuy bloqué. bateau bi tam bateau bi Italie. même bateau bi tam gars yi jël nañ ko jeudi mais bateau bi bateau bi da faara jeudi man ba fi mu toll nii xaw ma ndax fu mu nekk parce que kooku ma la wax ne man dañ ma wax ne ma ci bateau jeudi bi la départ mais xaw bi ma ndax ndax bateau bi 48 heures la dafa war a def normalement mais Mor Maroc tëj na ay ay forum ndax lépp lu jógee Italie actuellement nii déjà. beneen problème am na fi boo xam ne ni sax war ngeen cee gën a waxtaan muy koor yi nga xam ne ñu ngi fi parce que mm-hmm. ñun fii ci Bergam am waxee mi ngi fi dëkk muy sëñ Saliou Diouf moom deux semaines ngi nii mun munta dem ah, ah sëñ Saliou ba euh, léegi demagul léegi dem koor yu bëri ñu ngi fii moom doomu bari nañ fi maro marocain yi sax comme loolu sañ Pape doon wax sànq marocain yi ñu ngi organiser wu di waxtaan mm-hmm. ak état Italie ndax dañ leen jox benn benn bon vol spécial boo xam ne ñoom itam seen koor yi bëgg yóbbu Maroc pour ñu mën ko mën a organiser. xam nga xam nga tey nga loo xam ni. mosul génn te journaux yi daanaka def naa ne xamuñu ci dara sëñ Pape Makhtar. Mhm. yaakaar ah, naa ni mooy cas bi euh, actuellement nii Pape Makhtar. war ngeen jox mhm. Pape Makhtar Pape Makhtar président CADES tey jii am nga communication boo war a mën a jox ambassadeur parce que tey jii lii nii. Mm-hmm. urgence la boo xam ni tey jii yaakaar naa ni war nañ ci mun a taxaw. te boo li ci gën a garaaw mooy morgue yi bu dee fii ci nord bi euh, cas biñ ci amee dañ lay woone la kaay yóbbu ko wala nga jël yóbbu ko si ci seen cimetière yi nga xam ne vraiment foofu du place jullit. dëgg la tey ñoom amatuñuy place. ñu ne il fallait que ñi yor ay corps yëpp nga wax leen ne bu leen nangoo jël benn responsabilité dem di fa jëlee sa corps boo fa jëlee corps bi amoo foo ko yóbbulul ci ci privé yi nga ko yóbbu te privé yi minimum minimum chaque jour yaa nga fay cinquante euros bu dee cas bi ñu amul lu métti la de yore yore sa métit yore sa néew ñaata semaine mënoo ko mënoo ko denc daanaka mënoo def sax sa dëj en paix dembu tentative bi doon def ñu bari di ñëw def tentative jaar Lyon wala Nice France te France gi gitu, dem bal arrêté na mais fi mu toll nii loolu kaaw gouvernement Sénégal ci boppam moo war a intervenir parce que yéen a ngi wax nit ñi nga xam ne ñu ngi fi dudd physiquement nii ñun ñu ngi ci jàmm mais ñi ngi wax ay néew te bu doon xaalis la donc sax lu ñu leen laaj mën na dem marocain yi ñu ngi organisé wu parce que man euh, pompe funèbre bi ma ci tumu di waxal euh, nga xam ne jële Sénégal yu bari doon wax pour en cas sax ñoom buñ leen ko ass buñ leen ko d' ñu mën cee profité waale seen ñëw yóbbu ko Maroc mais eh, ñoom ñu ngi def demarche yooyu pour ñu mën leen a jox benn cargo boo xamante ni dinañ mën a am mm-hmm. possibilité si war mm-hmm. ñu fi yore yóbbu nag ko Maroc mm-hmm. Alitaali mën na ko mais nag ay lijjanti lay nekk yoo xamante ni vraiment du du du ay niveau yu kawe la war nekk mais Sénégalais yi ci organisation <laughs> bu dee association yeeg ñu bari vraiment ci dañuy nekk def ay live rek di wax ci yoo xamante ni yaakaar na am na yeneen problème yu gën a xóot. waaw waaw mais Modou waaw waa jooju nga dendal bu ko xeeb pap Makhtar tuuti na waaye nag xam na xam naa yëngatoom <laughs> jamono yi yi dox moom du la ko bu baax waaw waaw moo tax ma interpellé ko ma interpellé ko en direct parce que mooy président de la Matar ni vraiment mbokk yi euh, bari na fi nag euh, bari na fi lool ay ay ay parce que sénégalais yi ñu ngi fi yoo xay ne mënuñoo demee bari na fi bari na fi Mhm. ñu leen ay koor parce que bu dee xam nord bi ñu nekk nii sax xañ na yeneen dëkk yi amuñu problème parce que xañ ne am débordé bu comme fii mais fii nord bi actuellement li may wax ni hôpitalu fii Mercatis Ablaye Diop moom xam na ko man samedi bi pas bi bële dem naa fi ci morgue bi bi ñu fa demee mais foofu fekk na ko mu fees deux semaines fekk na mu fees bu yàgg ñu ne fees na fees Bergamo euh, euh, cimetière Bergamo bi gën a rëy nga xam ne dafa ci bëri fa lañ nekk tëj nañ ko fees na. dañuy hmm. commencé di di anticiper di crémaré lakk. waaw moom moom daanaka boo xoolee sax ñu ci bari bu ci coronavirus bi boo moytuwul dañ lay crémaré parce que gars yi duñu la nangu defar. si maanaam euh, pro la ñuy jël di crémaré parce que euh, mënatu ñoo xaar ñi nga xam ne am na famille yoo xam ne dañuy bëgg a ñëw organiser funérailles yeeg yooyu noonu mais loolu mënuñu koo xaar parce que fees na dell. ñun ñi am na ci ñoo dañ ñoo woon a kaale jël ko mais boo ko jëlee foo ko yóbbu da nga koy hmm. même privé yi loolu fees na donc hmm. kon loolu intervention état la war a doon mu mën a jàppale ñi nga xam ne seen i ñu ngi fi ñu xool luñ leen di yóbboo hmm. démb bu am na ñu ngi contacter ay frères yu nekk Lyon comme Lyon euh, soriwul mais Lyon itam li ñu li ñu xamal mooy amuñu droit dugg Italie di fa jële benn boole leen ci beneen kaale jóge ñoom mënuñoo gëm ne du kaawu coronavirus ñu jàpp ne ci foofu la faatoo duñ ko nangu am na ñu ñu wax ne dañu jox réponse euh, lundi pour Lyon euh, pour mu jaar France mais tey lu mel ni Air Sénégal mi ngi déparé Paris tey vraiment waroon naa mën xool jëm nañ ko contracté itam direction bi xool ñu ñu a def ba yooyu ñoom sax ñu mën cee defal jàppandal mais loolu yëpp liggéeyu état la war a doon surtout à travers seen représentants yi nekk fii muy autorités yi consuliers ambassade yi mais mhm. yooyu sax pour nga jot yéen wax ak fi ñu doon yombul daal gaa yu métti la fi jóge nii seen paap seen way yuri seen ñu ngi toog Sénégal di xaar dëj bi sax lu bees lay doon ci ñoom mhm. ay kataaw Saliou bi ay jabaram ak doom ñu ngi fii mënuñoo dem salma euh, bi mënut a dem chaque jour day mel ni lu bees tàq ci ñoom ci lool. ci mm-hmm. lool vraiment xam naa laal lu ngeen ci mën moom vraiment. Euh, soxla nañ ci ndimbal daal vraiment. il faut que mm-hmm. xam dara. te itam yaatu Sénégal ay mel na ni information yi nga fi joxe ci tëj bi am na solo lool sax. lool sax joxe nga fi information solo yoo xam ni maam daanaka. Euh, yeneen yi yeneen tem la maanaam danañ ci danañ ci dox soxna si nee na soxna si mooy yóbbu nee na mooy seen auditeur numéro un mu leen di nuyu nee na <laughs> ziaral ma ko <laughs> baax jërëjëf jërëjëf soxna jaara it maa leen di ziar lu baax di euh, technicien mi may xamal ni kaa bi sëñ Modou Diop di wax mm-hmm. ci sey salew Diouf ndeysaan nga xamni suñu dëkkaloo ñu ngi dëkk fi sama wetu kër rek. waaw. Eh, mi ngi wax ni ma mbokum sëñ Siri Jaxate mom itam ma nga accidenté ca boori Fodja. Mhm. waaw ñoom it daanaka. waaw mi ngi noonu moom nee na nee na nee na corps bi ba tey wax jëlee naa yóbbu ko waaye amaguñ sax man médecin bu def autobus bi amaguñ ko. Mhm. te mi ngi bëgg a defi fan. waaw léegi la ma ko technicien sifflé léegi ni man moom itam boobu xam nga loolu itam sëñ bi kii man la lii daal sëñ bi kenn xamut mu doon bii moom kenn xamut mu doon rek. waaw mais nag damay dellu si rek ci ci ñàkk ñàkk coordonné bi nga xam ni communauté sénégalaise bi am nañ ko. Hmm. ndax tey jii euh, communauté sénégalaise bi waroon na am benn comité de crise boo xam ni euh, dinañu am ay jëwriñ yoo xam ni ñoo ñuy waxal ci digganteek état bi ndax tey jii. Euh, suñu ay autorité man bërki ba àjjuma bokk naa ci benn débat Sénégal télé Sénégal boo xam ni maanaam autorité yi ñun ñoo leen doon jox ay nouvelles yu xew fii yoo xam ni xamuñu ko ñoom ak seen diggante ak seen i autorité ñoom xam nga loolu doy na waar ndax tey jii bu fekkee man maa koy jox wala wala keneen moo koy jox ki nga xam ni moo représenté sénégalais yi nii tey jii moom moo rëb moo moo war a nekk institution xamul ndax euh, suñu consulat wala autorité nangam wala nangam ak nangam xamul ndax sénégalais yi fi nekk ci yan yan yan condition la ñuy dund vraiment doy na waar loolu nag waxuma ko parce que parti laay wax wala déedéet mais dama ko wax parce que l'appareil étatique laay wax waxuma parti nañu teg fële affaire parti parce que jamono yi dunduñu politique dañu nekk ci situation d'urgence boo xam ni lépp lu nit mën a joxe pour sa réew ñun de ñi ngi def suñu wàll defuñu ko alarmer pour alarmer kenn mais dañuy def pour toucher les problèmes yi nga xam ni moom la communauté bi war a jóg taxaw ñu ne lii kat war nañ ci jóg taxaw man yaakaar naa ni daayira yi war nañu jóg ndax daayira yi ñuy ñuy ñuy pousse association yi ñoo leen di dooleel bu daayira yi jógee ànd ak association yi topp seen ginnaaw lu ñu bëgg dinañ ko def jóg jot na nag war a ñu mën a toog ndax tey jii situation bii ñu dund. ñu ne ñu am na ay sénégalais yu nekk ci biir am na ay sénégalais yoo xam ni yëf yi laal na leen ñu ci dugg loolu. loolu mbirum mm-hmm. état la ak mbirum ñu nekk fële ñoo xam ni am na sax ñu ñu internet ci biir hôpital yi. tey jii mm-hmm. waroon nañu am taxawaay bu ñu am ba nga xam ni lu fi dal communauté sénégalaise bi dina mën a jóg taxawu ñooñu waaye nag léeg-léeg dañuy bàyyi ba dara xew ku nekk génne sa xaalis te waxtu yii lañu soxla jóg taxaw doon aw say yor wenn kàddu bañ a seet ni ab laay mii de moo génne xel mi xel mi baaxul bu ko génnee man duma ko d'accord déedéet tey jii dëkk bu nekk war na mën a am ku fa nekk ñu ne kii mooy yore kàddu sénégalais yi euh, daayira yeeg association yi tënku ci moom muy dem di tànqi di leen indil information yi ñu seet benn taxawaay ñooñu buñ ko defee tey jii ñu ñu ne dëkk sàngam diw moo fa nekk ñu publier ko ci Facebook yi war nañu mën a créer benn réseau boo xam ni association yëpp fii sax la war a mën a jaar créer Mapatoura Pape Makhtar Tall. tey jii. lool lool lool lool sëñ Pape lañ sëñ Pape nag tey euh, maa ngi koy lancé di leen ko lancé yow surtout yow ak sëñ Pape ndax. Mhm. dañu naan euh, ñi war a faje bu ñu ba feebar moom ndax ñi waroon a créer loolu muy état moo waroon a créer euh, commission te vraiment wane na ay limitam kon ñi nga xam ne dese nañ lu nit ñi gëm te malheureusement itam suñu association yi ndax politiser nañ yu baree bari ba. ñu bëri tey e, démb rek am na benn émission bu may déglu am na fa soxna soo xam ne ni bi joxe joxee nga xam ne dañuy taxaw ngir Sénégalais yi fii yow mi la cité yéen ñi du bëgg tudd tudd waaye ngeen xam ne tey xañ na kon li nga xam ne moo ko war a mën a doxal tey xañ na mun naa commencé ci yéen ñi ndax li tax lee amul muy kenn ku nekk yaa ngi bëgg a wane sa bopp ca la nga yoree ànd gi yombul ndax man mi daayira bi ma bokk bi ñu commencé laajal bureau ba la ma fa njëkk wax dama ni coordination Lombardia bi la war a doon ñu contacté daayira yi nekk fi Monza Milan Milano Centrale Brescia Bergamo mu nekk action boo xamante ni bu nekkul national sax di nekk euh, action régionale Lombardia bi nga xam ne Lombardia moo jóg def mhm. nga xam ne au moins dina am benn impact mais ñu bëri fay dégg ñuy waxe doo comprendre nii lan lañu bëgg nit donc kon loolu ngay wax comme yéen ñi surtout yow yee sëñ Pape bi sëñ Ablaye <laughs> xam nañ leen ne dëgg yàlla crédibilité boobu yàlla def na ko ci yéen te xam nañ leen ngeen jóg lancé loolu ngeen dox ci ndax itam yaakaaruma ko feneen man fii ci Italie ne eh, keneen mën naa créer loolu nga xam ne war naa indi solution ci li war a am waaw. Mokhtar. waaw sëñ <laughs> waaw waaw waaw gars yi kay kañ nañ ma kañ li liñ naan kañ nañ ma. mais ci kàttanu yàlla bu nu xëyee suba teel moom. Euh, sunu yitte bi njëkk. ci loolu lay doon bu soob yàlla. moom danañ jël suñ téléphone woo autorité yi wax ci ak ñoom bu soobee yàlla. Euh, li ma lay ñaan itam li ma lay ñaan itam suñ action yi nga dégg ne association yëpp ñu ngi koy bëgg a def ngeen association bu nekk ñu woo la woo président ba ñu jéem a coordonné la ngay dajale ñu boole. dëgg la ko mën a xamante ni lu lay doon. dëgg la Sénégalais yëpp ñu def ko. Mm-hmm. Mm-hmm. association bu nekk yaa ngi dajale fi tool toll mm-hmm. ñëpp a ngi dajale association mooy ñëpp a ngi dajale mais est-ce que bu ñu dajalee ba pare mënuñoo coordonné wu def ko benn benn def ko benn benn mu nekk loo xam ne lu symbolique lay nekk tout mm-hmm. sénégalais mm-hmm. et les sénégalais d'Italie nekk loo xamante ni rek Massamba day dem nekk ci boo xam def defee kay joxe mille fee kay joxe mille cinq cent kay joxe nangam dëgg la am na lu mais est-ce que buñ ko defoon au niveau mu gën a kawee au niveau national dina dina rafet loolu dina mën a hmm. rafet dina mën a jox Sénégal beneen gëdd boo xamante ni suba mën ci ko beneen hmm. dimension sénégalais yi hmm. ci turu sénégalais yi même buñ ko dee def ci loo xam mais nag bu dee kenn ko dafa bëgg a toog sa ruq di def maanaam mën naa yem niveau local nii rek mais du am benn impact bi mu war a am te itam du question la ñuy joxe moo am solo mais geste bi moo rafet ndax tubaab bi doo fa joxe loo fekkut du dëgg effectivement am na sénégalais yoo xam ne tey li ñuy wax dañu naa la ba ma dégg ñu naan tubaab yi li nga leen jox am na suñ bokk yu ñu ko a soxla mais du loolu ay mm-hmm. mm-hmm. léeg nga ngay dimbali xamante ni gi nga jóge gis nga ko fi soxla waaye nag dafa am loo xamante ni lu lu rafet la am réew boo ci bokkee li nga xam ne moom la ñuy tooñee naari naari Mauritanie Sénégal ne am Mauritanie amul njariñu am ci réew bu nekk loolu bu ñu dal mënuñoo nekk ci dëkk bi di jariñoo dëkk bi chaque jour te dëkk bi bu soxlaa du ñu gis mm-hmm. chaque jour li ñuy war a xool chaque lu ñu yóbbu Mm-hmm. ndax fii lañuy dund te loolu yàlla mu ñu ko digal suñu diine dañu koo digal suñ tubaa dañu koo jàngal dafa mm-hmm. wane ci léppam digganteem ak français yi suñ Muntaxa wa mm-hmm. wane na ko tey suñ Muntaxa deux cent milliers am na ku mënoon na ma est que mënu koon a def biir Tuubaa mais gis-gisam daa gën a kawe foofu ak université ba muy tabax trente-sept milliards waaw tey tey tey daayira yëpp yekkoon li ñu yor war ko yóbbu Tuubaa tey bu ko ñu ko defoon suñ Muntaxa bu ko déggee da ciy bëgg te moom te ñun kenn ku nekk ñun sëñ Ablaye ngi ni ma dégg ñun Lombardi gi ñu nekk tey ji ñu fi am jafe-jafe yu metti kër sëñ mhm. Touba goo fi dem tey yaa ngi am jafe-jafe sax fooy mën a defe dara mhm. Mhm. loolu loolu la parce que dañoo dañoo comme li sëñ Pape doon wax sànq ñun dañoo tëj suñu bopp ñun dañoo xat dañoo yaatalul sëñ bi maanaam ñu ngi yàq yaatal sëñ bi moom ñu ngi fi depuis quatre-vingt nangam bi màggal ak cant te ba léegi tubaab yi mënuñoo xam li ñuy def lan la comme loolu sëñ Pape mm. di wax ci tubaab bi naan ñu ngi tuub tubaab bi ñu ngi tuub mais tey ñun ñii ñu ngi ci yëngu Pape moom xam na ko sëñ Ablaye mais xam na ko ansaar a ngi fi mais tey ansaar boobu mm. ñu ko jiite tey parce que yow mi jege tubaab bi sax di leen leeral yu bëri man tey fan yi liggéey mooy di woo tubaab yi nga xam ne albino boobu nga xam ne fii la mbir mi gën a grave am na tubaab mm-hmm. maam jaaraa nga fa mm-hmm. tey ci suba laa mujjee dégganteeg moom saan dëkk bi mu gën a grave ci Italie maam jaaraa nga fa fa la dëkk mm-hmm. mënta génn quarantaine bokk na dëkk yi njëkk a def quarantaine maam jaara busa di woote di ñaan te ab murit la sëñ tubaab dong la gëm tey tubaab mm-hmm. yooyu yëpp daayira yi xàmmee nañ ko li jëntiwuñu ko mm-hmm. yow mi leen di jege na sax yow dañuy jàpp ne da nga bëgg tubaab wala nangam nangam te fekk yow eh, da nga liggéey sëñ tubaab ci ñoom barki démb lañ ziare yoon sëñ Muntaxa ca Poroxaan semaine bee passé mm-hmm. mu ne mu ne sëñ Muntaxa soññi leen ne leen fu ngeen fu ngeen dem ba àgg am rek naa ko yëg mu àggale ko wax ci ay hmm. yéene yu am solo hmm. yoo xam ne vidéo ñu ngi fi te fii la hmm. daayira boobu nekk liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci côté bopp ci tubaab bi mais da ngay gis ne am nañu limite ci côté bopp ndax nit ki la desaa xamu la yow nga bëgg ko wan loo xam ne xamu ko ba pare amoo ouverture wu mën koo wax li nga koy wan lan la mais munu munu laa ñemee munu laa ñemee dëgg tey boo demoon tey kaana googu li tax Pape Demba di lijjanti tubaab yi boo ñëwee par moom sëñ Pape lu tax mu a lijjanti sénégalais yi ci moom dafa am dafa am benn jaxasoo bu mu jaxasoo tubaab yi sénégalais yi soxla daan xaaral ma dem ci Pape ah. parce que Pape defal ni yow est-ce que dina la lijjanti du la lijjanti mm-hmm. mm-hmm. wax ñu la jërëjëf jërëjëf sëñ ni waxtu wi jot nañu ndax xaabaabal nañ ba sori sax waaye am na am na keneen ku nekk ci ligne bi nañ ko dugal mu nekk sunu dernier euh, auditeur bisimilah mbokk mi. salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. Ousmane Lo lañ koy wax. Ousmane. Ousmane Lo. Lo sant bi de doy waar lool sax. sant bi mo moo dàq ja. <laughs> si Ousmane bismillah ay ñu leen di siyaare nag. Mm-hmm. di rafetlu kàddu yi ñu fi dégg yëpp. di mm-hmm. ci def suñu participation bi yàlla wax rek ci alxuraanu karim. Mm-hmm. boo demee surtout. karim yàlla dafa naan saaral fasaada fil bari bi maa bil bahri bi maa kasabat aydi naas mhm. liyuziqahum ba'da llazi amilu la'allahum yarji'un mhm. dafa am loo xam ne bu dikkee ci jamono ay ay sabat mooy ay nit su ko defee da ndax ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla salaamaaleykum. waaw mbokk mi mbokk mi euh, euh, taaxir loolu tuuti rek. bisimilah. ma ne. waaw sëñ Ousmane. waaw ma ne. ñu ngi lay déglu. waaw te léegi nga mi fu dikkee rek ci nattu bi nga xam ne ñëw na ci àdduna bi. yàlla na ko mm-hmm. séddalee ndax jullit ñi dafa nekk ci ñoom ñoo xam nañ ci ñoom xéewal la ci ñoom. Mm-hmm. ndax. damay wax ne toujours da ngeen di wax ci Serigne Touba waaye dafa am foo xam ne da ngeen fay gàttal te dafay guddal moom. Mm-hmm. ndax bi mu mooy ba mu waxee ne yàllaaw bil Moustapha. Mm-hmm. dafa ne sindi di. Mm-hmm. àggal ci aaya ba ne wa Ibrahima yàllaaw. te ñooñu nag dañ leen toujours pare ginnaaw te moom dafa bokkoon ci ñu doon jiital. gis nga booy ànd. di sàmm dafa am lu la yàlla sant. dañu benn naar dafa mos wax bu lu am solo ci sénégalais loo xam ne benn xeet amu ko budul sénégalais te Rome la ma ko waxoon mu ne ma sénégalais ci wàllu solidarité defe naa ci nekk numéro un. Mhm. kon loolu mooy li nga xamante ne si ne tey jii ñun tey ñëpp war nañu exemple ci loolu waaw su fekkente ne si ne yow ki nga ne moom moom nga jël teg ci sa kanam muy sa nattukaay di sa référence. amul woon compte banque amul woon mbubb moo xam ne am na poos mhm. yow nga ne moom kooku ngay roy mhm. te booy woote day woote mbooleem li nga xamante ni si ne moom woowul woon rek ku dëkk Sénégal walla ku dëkk Touba mhm. waaye dafa ne Touba li Abdou la wax waaye waxul Touba li taalibe benn ngoog boo xam ne bu am solo muy waxam la ndax alisina amanu wa amilu saalihaat Touba la woosul mahab alquranul karim la kon Serigne Touba dafa tëggaloon àdduna bi yëpp kon képp koy tëggal dib sénégalais. Mhm. doo xamee saxub tijaan ko murit doo xamee xaadir ko laayeen doo xam ibaadoog leneen waaw ndax yàlla yàlla bi mu woote ne yaa yuli sina amuna tama kunu maa saadiqin Serigne Touba ne Touba li abdul muridin saadiq waaw abyaat yooyu nag li mu mën a jëriñ yëmul ci Sénégal rek waaye waxuma la sénégalais waaye dafa war a mën a jëriñ àddina bépp mhm. gis nga alxuraanul karim boo jàngee suuratul ixlaas. loolu xam yëpp ne nañ alxuraan bu dee ñetti ci yaar jàng benn ba genn wàll ba. loolu nag dégg la dafa amul dégg Pape Demba. kon sunu mag ñi fa yonent bi alayhi salaam tibbee woon te li yonent bi alayhi salaam waxoon ne ba ne al alxinaa xinaa nafs nee na xam nga luy koom mooy doylu. loolu tax Sénégal yi rawoon ñëpp ndax alal am na koo xam ne moo raw moo raw bakkan yi. man damaa bañ kuy dut sénégalais yi ne sénégalais yi am na am nam saarit waaye sénégalais boo woo ci wàllu soldaaram ci dimbale moroom jàppale moroom amuñu amuñu amuñu taalit dëgg la waaye njiit yi nag ñoo bàyyi suñu war a jiite ndax boo jiitee koo xamante ne si nag leer la ne ci boo ko fekkoon mu tëgli doonu nga mën a jël sa salaire def ko ca mhm. wallaay war ko koy woo ngir yàlla te yéeru ci nag te am ci fay yàlla mhm. kon loolu waroon suñu taxawaayu mag ñu Pape Demba wallaay man dafa am côté boo xamante ne si ci association yi wala daje yi damaa bëggoon toujours rek duñ duñ ko amal duñ ko amal duñ ko amalu duñ ko wutul sax aw tur xanaa tur bi nga xam ne moom la yàlla waxoon yonente bi alayhi salaam salaam ne ko walaw asatan bil ardi jami'an maa allafta bayna qulubi walakinna laa allafa baynahum waaw. <laughs> jërëjëf. kon koom-koom boobu mag ñi amoon. Mhm. ñun ñëpp daw di wut Sénégal ndax xel Sénégalais. Mhm. waaye bu ko jëfandikoo waaye. Mhm. mbokk maa ngi lay ñaan ngir yàlla te nu ci ñaan ñun ñëpp suñu ñaan. wallaay buñ ci taxawoon ñun ñëpp. Mm-hmm. dama ne ñëpp ci suñ ab marocain mos na ma ko wax ne ma kon sénégalais mooy tey lu waay di faju ji wala nga dugg Sénégal nga koy wutee ji. dëgg la ji dëgg la loo dëgg la loo. waaw kon maa ngi leen di wax. ne jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kii sama jëriñ. jërëjëf loo jërëjëf. bëgg nañ lool mel na ni mel na moom am na solo lool sëñ bi Eh? jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah, suñu Pape Makhtar waaw suñu waaw kon xam naa ah, mu joxaat leen kàddu gi rek ngeen joxe seen kàddu gu mujj ma jox nag sëñ Ablaye mu def ñaan gu mujj gi ñu tëj mhm. waaw émission bi de moom macha allah vraiment li fi rot yépp moom yàlla na ñu ci yàlla eh, yàlla na ko yàlla dégg rek te saafaraal ko nu mu gën a seddee mhm. eh, dégg wax dëgg yàlla loolu sëñ Modou Diouf wax Euh, danañ ci dox incha allah soob yàlla bu ñu yàlla mayee fanaanu jàmm bu ñu xëyee ci loolu la ñuy dox. Mm-hmm. Euh, euh, ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu te it loolu jommul kenn ci ñun ñi kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla it boo wane ginnaaw ñu taxaw taxawaay bu rafet. Mm-hmm. rawatina nag ci njaboot gi nga xamante ni ñooñu moom lañ fi bàyyi. ñu mm-hmm. ñu seen njabootuk bopp bis bu yàlla sàkk day day day day doon lu bees ci ñoom. kon dama mhm. euh, jaadu waxtu yàlla ñu interpellé ci suñu ay autorité mhm. euh, sànq ci développement bi dama fàtte woon agriculteurs yi ndax suñu mbokk yi ñu ci bari ay ñu ngi ci tool yi ñu ngi ci nag yi ñu ngi ci yeneen ak yeneen mhm. euh, ñoom am nañu ay ay kii yoo xamante ni ngëneel yoo xam ni muy tempo indéterminé yi ak tempo déterminé yi gouvernement bi mi ngi koy prévoir semaine bi incha allah ci côté agriculture yi ci do ci la euh, décret bi di génn mm-hmm. euh, si ci zowa mooy pour indéterminé yi temp déterminé yi aussi ñoom euh, cas intégration ne déroga lañ leen di defal mm-hmm. te it ñi war a def disoccupazione yi sia muy NASPI wala muy agricultura bi nga xamante ni trente et un ci weer wii la war a jeex mm-hmm. def nañ prolongation soixante jours bu ñu am benn jaaxle nañu nañu laccé rek ndax ku laccé do rër té mhm. borom amiñ mom yaakaar naa ni bu rëré rek ci mom ci moma ñu ñu fi joxé nañu suñu disponibilité suñu téléphone yi du fay euh, lu doon rek ku ci am jaxlé kayit buñ la tegal nga war ko signé mëno ko signé photol yónnee ñu ñu wax la ci tank taxaway bi na nga ci wara taxawé inshallah rabbi situation la bo xamanteni kenn ku ci nekk ci ñun soxla nga ku la gindi ci na nga na nga wara taxaway ba nga wara am ci euh, ci ci lolu Mhm. comme xana ñu gàttal rek comme xabaabal nañ lool ñu jégalu bu baax suñu ñu euh, Pape Makhtar Pape Makhtar euh, waaw sëñ Diop ma jég ma jégalu laaj la benn laaj bala ngeen a tëj nit ku ma ko doon laaj mu ni dafa dégg ni décret bi ni euh, suspension yi day muti yi maanaam ñi nga xam dañ fay jëndoon kër loolu ndax day laaj ab pratique bu ñuy def wala automatiquement bu ko gouvernement bi varaaree rek maanaam directement banque yi ñoom dañ dañ koy daal di adopté ngir suspendre muto bi pour moment bi nga xamante ni quarantaine lañ nekk wala déet waaw euh, gouvernement bi avancé na loolu mais génneegul décret applicatif yi maanaam forme yi ni ñu koy defee ak yooyu yëpp génneegu ko yooyu yëpp moom la ñuy xaar nii euh, xam naa ni jam instant bi ñuy waxtaan nii nekk ci émission bi du ñàkk mi ngi nànk mais publier guñ ko ci gazette officielle maa ngi o même gis naa sax laboratoire autonomie jox nañ leen six cent euros waaw am na lu ñu leen jox mais mais ba léegi génnagul parce que il faut ñu xool décreto applicativo bi nu muy demee. ci yan condition charte yi. Mm-hmm. waaw parce que xam léeg-léeg. da ngay gis dara rek ñu ne ñu ne ñëpp ci bokk fekk ne dafa am yoon wuñ koy teg. ba noppi décret bi chaque fois bu génnee xam nga syndicat yi aussi ñun dañu am benn formu liggéey su décret bi applicative yi génnee ñun dañ ciy defaat beneen càmbar parce que dafay am ay cas yu yu yoo xamante ni dafay xaw a compliqué. Euh, parce que décret bi day décliner d'une façon générale mais def ci am ci biir ay cas yi particulari yoo xamante ni il faut que ñu interroger waat ko encore euh, moo tax ñun chaque fois dañuy xaar ba décret génn rek ñu soog koy faram-fàccee pour pour euh, nit ñi mën cee bénéficier wu mais en aucun cas lu mu ci mënti doon rek bu neexee yàlla bu laajee ñu def sax émission spéciale ci décret boobu parce que décret boobu mooy joxe couverture yëpp couverture yëpp sur le plan économique et tout bu laajee ñu def émission spéciale sax bu ci kër gi incha allah euh, ci biir semaine bi bu ñu ko Modou Mbaye Thiam mayee rek bu soob yàlla euh, mën nañ ko baaxee gaa ñi dinañ ko dugal aussi ci page yu Facebook yi ak yooyu ci kàttanu yàlla xam mhm. naa rek euh, ñu gàttal kàddu yi foofu di jégalu bu baax ci kàddu yi bu ci dara dëngee rek suñu ñàkk matadi la di jox nit ñi dox daje beneen di émission incha allah ci kàttanu yàlla jërëjëf sëñ Pape. jërëjëf jërëjëf Pape Makhtar. taxaway bi amna solo mën naa ni ci suba ba léegi ñoo nekk di liggéey démb ba léegi laay wax sax ndax démb ba léegi ñi ngi réunion eh, di di sant bu baax te dara dara nag waralu ko lu dul liggéeyal askan bi rek sëñ Modou mi ngi ci biir wala génn na mel na ni kon Modou génn na waaw sëñ Modou génn na génn waaw waaw xanaa kon kon ma ma ziar rek jox sëñ Ablaye di sant mbokki taalibe yëpp waaye di dellu siwaat ci wax ju mujj ji rek ndax bari na mbokki taalibe yu ma commencé laaj ci saa si di ma envoyé message ndeysaan ñoom Ibrahima Thiam ay sëñ mbokk yu bari ñoom sëñ sëñ Cheikh bu Santa Croce déjà commencé di ma wax ni ma naa leen wax fu ñuy dugal xaalis xam nga rek ndeysaan am na mbokki taalibe yu yu yu yoo xam ndeysaan moom seen seen i taalibe moom foo ko dànd rek eh, weesu na ko fa waaye mbir mi du du du question xaalis bi euh, cest à li ñu wax mooy significato bi moo si gën a am solo. Euh, tey jii man dama gëm ni loolu sëñ Modou Diouf wax ni Lombardie dañ ko war a def loo xam ni lu lu rëy lay doon doon tënku benn euh, association baa ngi fa jamia baa ngi fa tey jii man munuma génn ku mel nii sëñ Ahmed Ndiaye euh, sëñ Ahmed Ndiaye munu munuma ko munuma ko munu sëñ Ahmed Ndiaye maay bu munuma ko cee bañ a bañ a tuumaal ci lu mel noonu ndax dafa am nit ñoo xam ni liggéey luñu pour génn tur dañuy liggéey pour askan wi te it euh, am na loo xam ni bu ñu jógee di ci wax nit ñi dañ leen di déglu sëñ amet ku mel ni sëñ Ahmed tey jii sëñ Ablaye gis nga ko bi crise bi amee ba léegi taxawaay bi mu ci am di jox nit ñi instruction doo dégg sax mu mu publier ko maanaam ay audio lay def di teg nit ñi ci yoon woo xam ni tey jii mën naa ni ambassadeur u Sénégal wala consulat ba moo ko waroon def tey jii figure yu mel noonu ñi ngi ci dëkk yi euh, dëkk yu nekk tey jii boo nee Parme looy wax Pape Mokhtar Abdou Ba nga demaat beneen dëkk boo nee boo nee boo nee Brescia di nga tudd ku ne ku mel ni Seydina Camara wala wala wala sëñ sëñ ñaan nga nga dem yeneen dëkk noonu noonu tey jii dama gëm ni euh, réseau bi CADES war a def mooy fexe ba dégganteeg ñooñu instruire leen ñu woo daayira yi ñu commencé def benn taxawaay su boobaa nag ku nekk dëkk ba nga nekk soxlawul ka nekk Milan bëgg a bëgg a yónnee fii Toscana xaalis du am solo ku nekk dëkk ba nga nekk war ngaa mën a seet ka kilifa ñu def benn organisation moo xam dañ koy laaj moo xam dañ koy ket moo xam dañuy def poste pay ñu ubbi ko nga xam ni bu waxtu wi jotee ñu ne dajale nañu Italie nangam ci xaalis su boobaa nag danañ xam naka la ñuy def ba def benn kuréel ñu ñëpp ànd joxe ko ndax man gëm naa ni bés buñ ko defee dinañ ci am ndam lu rëy loo xam ni danañ siggil Sénégal danañ siggi ñun sénégalais waaye it euh, danañ amaat taxawaay buñ ñu xoolee xam ni ñii kat ñu ak ñëw ma bokk dëkk bi te su boobaa nag euh, appartenance bii ñuy wax dafay feeñ ndax su boobaa dañ koy démontrer ci wàllu orgueil boo xam ni euh, euh, nit ki day xam am na loo xam ni boo ko defalee du ko fàtte loolu daal laa ni woon naa ko tëjee di ñaaxaat sunu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk fii wax dëgg fa yàlla mbokk yi toog leen waxtu wi du waxtu tukki dama gëm ni ak loo war a dem lu jamp-jamp nga ni yaa ngi dem Sénégal waxtu wi da ngaa war a toog ndax euh, euh, kii tukki euh, xamul ndax yóbbaale na feebar yaakaar naa ni mu toog fii feebar bi manifesté wu fii moo gën muy manifesté wu ci yoon bi wala muy dem ba beneen dëkk dik fa yóbbaale su boobaa dana lor ña muy fekki te it loolu l'islam sax am na bu mu ci acte nañ leen seetaat sunu ay comportement toog waxkee sunu borom te gëm yàlla xam ni dëkk bii ñu nekk lu fi war dal fii la lay dalee munoo koo mënoo koo mënoo mënoo cee rëcc waaye yaakaar ni sëñ bi créer benn situation boo xam ni daanaka mën naa ni da ngay leedere presque toute une communauté entière ndax tey jii génn def benn yëf ñu ne communauté sénégalaise bee ko def lu war a mën a ñàkk la kon mbokk yi ñu ngi leen di tuubalaat ci lépp loo xam ne rek kàddu yu dëng la leen xam ni doomu di leen wax ni doomu aadama moo matul waaye lépp lu ci rafet rek ngeen xam ni ndimbalu suñu borom borom la ñi ngi sant nag bu baax sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ndax moom it jamono yi vraiment mi ngi def ay sacrifice yu mag dimanche bu nekk daanaka dañ koy toogloo lu ëpp presque union de temps mi ngi nii daanaka bi ñu waree arrêté waaye nag jamono ji moo ko laaj ñun ñi ku ci nekk tey jii danga bàyyi yitte pour taxaw ci loo xam ni mooy yitte àdduna bi yëpp kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen di leen gërëm te di leen jox jox daje si kàttanu suñu borom dimanche ak jàmm alaykum wa rahmatullahi wa barakatu suñu bilaay jërëjëf jërëjëf sëñ Pape jërëjëf sëñ Pape Mokhtar jërëjëf Thiam Baye fal ñoo ngi sant ñëpp loolu mi mujj dugg wax dëgg kàddu yu am solo la fi andi di sant sëriñ Modou Diouf waaye di sant ñi nga xam ne ñëpp duggoon nañoo dugg te mënuñoo dugg di leen masawu bi ñu nekkee xam na ni diis na xat na waaye nag euh, du jikkoo jamono la jamono ko wote jamono nag bu ko wootee da ngay wàlliyaan ci li nga xam ne rek moom la moom la jox ndax ñun fi nekkal di tubaab ñoonu gën a bëgg a génn fopp ñoonu gën a bëgg ndax adduna dong la ñoom waaye bu ñu demee ba renoncé ko toog ñoom ñëpp kon ñun ñii nag war nañoo gore te sàmm nag sàmm suñu bopp li docteur bu doon wax daal ni eh, aidez-nous à nous aider à vous aider aidez-nous à dimbali leen ñu ngir ñu mën leen dimbale daal ndax ñoom toll nañ fo xamni ni eh, seen jumtukaay dina tut te dañ ko waxe mort gi sax dañu fess eh, Baye fal ni ngi may suggéré légui ni man kooku wàcc liggéey fële ca boori Soxoja mi ngi tuddu seigne Mor joxate ñoo ngi ñaan suñu borom ko xaré ko àjjana bok seigne salu juuf mi wax dëgg yàlla kep ko xam ni suñu borom dogal na mu wacc suñu liggéey te suñu borom yama la ko fofu ñu fi dess ñepp dal yalla leen suñu borom sam bañ wat ci njabot ga ndax ko sañoon mom lepp lay dal rek dal mu lay dal sama réew waaye réew moo xam ne fa yow fa nga dëkk onze mois sur douze boo demee seen réew ma nga mooy seen réew muy Sénégal gi mu jógee rek nga fay def kon dafa mel ni fii lañ gën a dëkk waaye nag euh, dara andi wuñu fi lu dul rek euh, inna ardi waasi'atan maanaam suñu borom daal moo ni sama suuf si yaatu na euh, tasaaroo leen ci fantastiroo fil ardi ngir mën a sàkku wërsëg waaye sàkku wërsëg bi yaakaar naa ni jaamu yàlla ci la te foo mën a demit ñaar dong ngay wóoyaale ñaar dong moo la fay bàyyi mooy jaamu yàlla ak liggéey te yaakaar naa ni Fi yag nañ fi te musuñu fi am jafé jafé yag nañ fi musuñu fi am benn problème natt suñu borom mo dik kon nak ñu bokk ko ñi nga xam rek ñom lañ fi nekkal ndax bir mi xew rek ñu bàyyee leen ko daw daga naa lool sax du du du ngor du ngor ndax 60 millions d'italiens bu ñu fi nekké fu ñu dee ñun ñëpp war nañ faa bu dé ngor bu dé ngor dong la te ku sab àpp di ñëwut ci waccu liggéey mu kon il fa ñu dalal xel yi delloo suñu borom suñu xew ci suñu borom delloo tuub tugal suñ borom baax baax tugal julit ñëpp tugal eh, bindi fi yëpp suñ borom jéggal julit ñëpp pap dem wax na ko léegi yonte bi sallallahu alayhi wasallam na mbass fu mu am bu fa dem ku demagut ci boomu réew bu fa dem waaye ku nekk ci biir réew man bu ko génn ndax loolu mi ngi ci fagaru wàll gi nga xam ne mën nañ ko wàll tey jii ñu ni ñëpp nga xam dañoo nekk Italie ku ko wax ku ko wax am nga loola naqari ci ba nga déggee ñu la benn moor wu jóge Italie moo ko andi Touba fi ni askanal nañ ko ni ko fi mu moko ñu fo ñëk duggal ci lo xam mi ngi divulgué ben épidémie te am na tubaab yi ko fa duggal a ñoo ñoo ñooñu nañu tuñ leen ndax ñu ñoom ñoy ñi nga xam ñoo ñoo ñoo wéxu donc kon nak ñaan suñ borom teggi ko dal eh, wax dëgg te eh, te tàppewaat xol yi boole ko fa seen dool aussi eh, mbolo yomb na waaye fexe bennoo ba mëna ba nga xamni situation du démé né ni nga xam ñu koy waaj dajalé ci copper yo xamni xeyna xëy buñ sañoon dimbaleeku waa réew mi ak nu mën a toll ni ko suñ Modou Diouf waxee c'est pas la la la quantité waaye qualité la maanaam geste bi rek moo am solo geste rek mooy symbolique lu waay am ñu mën ko cee def ñu mën ko jébbal autorité yi ni ko suñ Pape Demba waxee léegi rek suñu Ahmed Ndiaye ku ci am euh, wax dëgg xalaat la te moom ab doxam ak yëngoom bëggut kenn xam ko te yàlla dong nga tax muy def suñ Tuubaa dong nga tax muy def ñu mel noonu bari nañ fi ñu ma leen a saytu boole leen tey jii ni ko Pape Demba waxee suñu autorités yi dañu war a mën a profité ci ñooñu def leen ay interlocuteur ñu dox suñu seen digg ñoom état bi ak nit ñi xam ñu ngi fi nekk waaye soxlawuñ lu dul rek bu dee ay élection dafa am bu dee ay carte dafa am loolu nag daanaka doxalul am réew am réew boo fa nekkee sa njaboot da koy saytu ndax doom alal la te ñii fi nekk kenn ku ci nekk boo sañoon loo am ci teraanga Sénégal nga koy yóbbu loo gis lu rafet sam réew nga nga koy yéene bala ngaa lekk sax da ngaa fexe ba sam réew lekk sa njaboot lekk loolu nag boo amee ku la ko a defal te sëñ bi nañ bàyyi xel ci immigré yi nga xam ñu ngi ci réew mi ñu ngi ci bitim réew buñ xëyandoo woon ñibbi kon état bi am problème leer laa leen wax kon nañ dem di gën a jàppandal seen mbir ba ñoom fi ñu nekk duñ fa am benn jafe-jafe waaye ñun jàpp nañ suñu jafe-jafe lépp passeport dong la suñu jafe-jafe carte consulaire suñu jafe-jafe du ànd ak euh, extrait de naissance la déedéet dañuy dund ci réew moo xam ne dañoo soxla li ñuy wax titel muy nijaay koo xamante ni dafa war a dox suñu digg bii ñu nekk ñu état bi nga xam ne ñoonu ñoonu ñoonu hospité fii te loolu état moo koy dox doomu aadama tierce personne mënu ko état ak état ñoo am des relations bilatérales yoo xamante ni ñoom loolu maanaam dana yell ci ñoom te bu boobaa loolu seen liggéey doon ñu am interlocuteur yoo xam ne a dox seen diggante association ak daayira yi ngir mën a saytu mbooloo mi ba mën a xam exactement sax ñaata Sénégal yi ñoo fi dund loolu tey ji boo ko laajoon dangeen dañ naan la ñi fi am carte rek ñoo fi ñëw c'est-à-dire war nañoo mën a def des des ay séances de sensibilisation jëma a recenser ñi fi nekk automatiquement xam ñaata doomi aadama ñoo fi nekk bu boobaa nguur gi dana am yoo xamante ni mën na koy négocier sa ak état italien mas naa cee waxtaan sëñ Maxtar Kuyate laaj ko ni ko waaw mais ñun lu tax sunu par exemple sunu eh, pension yi waruñu ko woon a mën a verser état Sénégal nga xam ni mu demee ba euh, retraité dañu war a mën a dellu suñu réew di ko fa retiré mun moom état Sénégal jekk na ci waaye état italien moo jekkagut bu boobaa nag loolu xam nga waxtaan la laaj boo xamante nii doomu aadama man mënuma koo def parce que jotiwuma ca Conte jotiwuma ca Mattarella jotiwuma ci ministre di lavoro waaye Macky Sall ak i ministre ñoom war nañu mën a dox loolu kon loolu lépp ay ay bunt loo xamante ni war nañu ko mën a ubbi kon daal ñu bàyyi xel ci jàngoro ji moom am na te ku ko gëmut xëy na da da ngaa nekk feneen fu sore waaye ku nekk Italie xam italien ni mu mel ci football mu arrêté ko xam ni mu mel ak oto dama ni fan yi kenn xamul ko ku am ak R4 ak ku am ak 4x4 ndax oto yëpp a ngi gaare kenn dawalu ko kenn xamewut ku riche ku pauvre kenn xamewut ku yor ab étage wala ku yor ab villa ñëpp ngi ci biir kër yi kenn gisut kenn kenn mënta somee sa morom kenn ni nangam la am wala laa taq yàlla rek mooy buur kon nan ci bàyyi xel bu baax a baax tax ni feebaru daal moo gën faju kon xam naa eh, ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko tëjee xasida gi rek ngir suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñi ci jullit ñi waaye wàcc ko ci àdduna bi wàcc ko ci mbindeef yëpp rek bismillahi rahmaani rahim allahu xayyun samadun wa baaxi subhaanahu zu kanafin wa waaxi wa naxnu fi kanafin mannihi min kulli charrin a zan sanniixi mustamsikiina bil xiyaasi ahmada xayral anaami muntahat mutada من خالها في زمن الوباء امنه الله من البلاء لو صل على سيدنا محمد بن وسلم بارك برم دوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah,